mardi bu nekk ci TFM ngeen baaxoo di ci ànd ak Pape Cheikh Diallo tey jii mu nekk ci yeneen yi tey ñu fexee nuñ ko fi wutoo ngir ànd ak yéen ci déclic déclic ni ñu ko baaxoo di ci ànd ak ay journalistes kër gi ñu ràññee ci ñuy ci àndal tey jii ma ànd ci ak euh, Faty Dieng am mbégte dalalaat ko Touba la ñu gëjoon a gisee ca Déclic ga ca màggal ga <laughs> tey ñëw na fekk si ñëw Faty maa ngi lay nuyu bu baax. Mouhamed maa ngi lay fay dañ koo biisaat. <laughs> Déclic ba ca Touba lañ jë lañ àggale fii ci euh, dakaar mm-hmm. ma lay fay Mouhamed di am mbégte di bokk ak yow plateau bi di nuyu sama naataango euh, Pape Djibril ji ma Makumba Bey naka noonu itam te téléspectateur di leen wax da leen jàmm ci Déclic. mi ngi ak Pape Djibril Fall moom it di ànd ak ñun euh, ci Déclic tey jile laata ñu leen di présenté gan gi mooy kan ba euh, di leen junj yu ñu war a waxtaanee ak moom Pape Djibril maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Mamadou Mouhamed. waaw ah, yow damaa waroon tàllal loxo yi nga ñaanal parce que naa def sëriñ baa ngi ñëw pour ñaan. <laughs> ay ca kon baax na. <laughs> di la gërëm bu baax di gërëm euh, soxna Fatou Dieng bi ñu bokkal plateau bi ak El ma Makumba bi ak sénégalais yi ñuy seetaan yëpp si biir réew mi ak si bitim Makumba Bey damaa ñëw moo tax ma Makumba borom mbaam yi waaye tey jii moom sénégalais yëpp jaajëfal nañu la. am na ci wàll de est ah, bokk ci ah moom kay. est bi. <laughs> projet beeg ni mu ko ni mu ko. da am mbaam yóbbu ma sax waaye dama am histoire bu particulière mbaam dañoo yàggan naan sunu waa kër dañoo yàggan naan mbaam waral ko. man lu ëpp juróom ñaareet at maa daan rooti yéeg ci sareetu mbaam dem di ko indi ndox di am ci kër ga ndox du am ci kër ga man may tak mbam mi dem roti indi lu ñu naan ci kër gi ayo ah, ok kon may ngi buñ bëggee maa ngi xam tax nga xam njëriñul mbam non non c'est-à-dire waji mbeur ci bopam la <laughs> business plan bi bu ci mbam bokul du bax est-ce que business plan bi bo defee fas du dem parce que lu mu dédé dee fas wu né da nga jëndé 300000 10 mille mhm. fas yi 3 millions mom lim dépenser lepp néna matul 2 millions nga dogo outil uti nit jangé na yeeyil ba génn la wax ni limu taxawal ni mënoo ko taxawal ci jub ñu ngi nuyu kon Mouhamed ñu ngi lay nuyu <laughs> nuyu Pape Djibril siyaare ko ndax fi mënu mujj démb waaw nuyu soxna Faati di xaar sëñ bi moom itam ñu ngi koy siyaare léegi len li li Makumba wax li tax mu am solo mooy mhm. gis nga coow li jóg ci mbaam mi wala mbaam yi mhm. gis nga réew yi raw yëpp Mouhamed bokk na ci li ñu rawee mooy mooy solo si ñu jox mala ak gàncax muy alam bi mhm. ak jigéen ak xale te boo gisee ni ñu def mbaam yi collage yeeg coow li ci jóg dafay defin dafay wane aussi rapport bi ñu am ak mala yi loolu moo tax suñu dëkk yi mala daf ci sonn trop waaw sonal nañ gis nga déjà rapport xam nga mala yi démb bu ñu amoon ku leen di porter plainte dinañ porter mm-hmm. plainte mm-hmm. waaw waaye nag loolu tamit dafay expliquer ñun suñu sous développement waaw mala xalé ak jigen dëkk ak alam bi bon ñoo ñoo ko constitué. Mhm. dëkk ñu leen gëna fonk yépp ñoo gëna avancer avancé. ñi ko gën a ginaaw yëpp ñoo ñoo gëna gën a. féete ginnaaw ñoo gën a jël ginnaaw yaa ngi koy junj sànq Déclic tey ci télévision Futur Média ñu am mbégte dalal Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma. euh ministre conseiller la bu weesoo looleet euh, amee ndombal tànku président commission culturelle ak communication bu màggalu Touba gi weesoo cër biko ko sunu borom euh, baaxe mu di ko bokku ci njabootu Serigne Touba Ahmad Bamba mom lañu dalal tay ji ci Déclic bala ñuy sori Déclic euh, baxo ci ànd également ak téléspectateurs yi fuñu ñu di nek euh, ci suñu plateforme digitale yi Mamadou ndjay ma ngi lay ma ngi lay nuyu. ma ngi lay fay Mamadou mohamed di nuyu ñi nga bokkal plateau bi di nuyu téléspectateurs yeeg internautes yi xana di wax ni. ciowal mbaam loolu ak Makumba. <laughs> Uh-huh. ñoom ni ñun dañuy scruter ci réseaux sociaux yi ak internet yi actuellement daal lim ci wax. Euh, internet yaa ngi koy partagé ñu ci bari ñu fës ji ànd ak moom xalaat gi nga xam ne def na ko mais surtout chronique bu am solo bi. Mm-hmm. man daf ma rëcc ci mais xam naa ne suba moom incha allah il faut mu ñëw ci ndax ca coowal mbaam li comme ni ñu koy waxee rek. expression yi ñuy utiliser def a ma xaw daal daa bëri histoire daal. te wane na ko. ganu tey gi ci Déclic Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma la. ñu xool taxawaayam d'abord ci ci réseaux téléspectateurs ni ñu mëna andé euh, ak ñun ci déclic bokk ci waxtaan wi. Mhm. mëna également poser seen ay questions ganu tey gi. voilà lu am solo la ñom euh, internet yi min nañ ko ci suñu plateforme yëpp muy Facebook Twitter wala Instagram hashtag bi min ngeen ko déclic la wala déclic TFM euh, tay nak gan gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma am nak trois pages Facebook yo xamante ni bu ci nek da ko différencier manam ci casquette yi mu yi mu yi mu yi mu yi mu dafa am page bo xamante exclusivement réservé page religieuse la manam mhm.

voilà moom ci lay waxtaan ak peut-être ñenn ñi nga xamante ni ñooy euh, ñii ay internautes yi am ci boo xamante ni ko duppee page politique maanaam ci conseiller euh, spécial bi mu doon wala conseiller bi mu doon ci euh, président de la république mu nekk ñetti page yoo xamante ni xam ni ñi koy ñiy gérer ay community manager maanaam ñiy gérer kàddoom ci réseaux sociaux yi am nañu liggéey bu am solo mais nak Facebook la gën a présent maanaam ci Facebook la ëpp lu muy jokkalanteeg ñi nga xamante ni ñooy internautes yi internautes la ñi ngi doon xool ci Twitter ak yooyu mais daal gisuñu ko ci lu bari euh, bari na ci aussi ay déclaration wala ay euh, ci situation politique réew mi bu ci génnee yu ci bari dañ koy partagé ci réseaux sociaux yi moo taxit euh, comme ni ñu koy duppee rek i réputation nekk na lu am ku am présence lool ci réseaux sociaux yi rawatina Facebook loolu nag tey. moo tax dinañ ko gën a jaax ñii di internautes yi waxtaan bi ñu fi nar a waxtaan nag dina leen soxal yéen internautes yi hashtag bi min yéen ko muy euh, déclic wala déclic TFM ñu fas yéene dem taataan seen ay kaddu wala seen ay commentaire wala seen ay question ñu daal di ñëw partager ak invité bi kii di euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma mu ngi noonu kon gan gi ci kanam tuuti danañu ko dalal mais déclique ak ni ñu ko baaxoo dañuy jàll ci rubrique yi benn benn euh, soog a dalal gan yi zone libre tey jii ñu ciy waxtaanee taxawaay bi nga xamante ne jii kilifa diine yi jiital ci sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou taxawoo nañu ko ci jafe-jafe yi amoon ci réew mi fan yile askan wi ñëpp a ko rafetlu te di sàkku lu mel ni bu amatee ñoom kilifa yi ñu teel ci wax ndax askan wi danañ leen déglu te it jox nañu leen cër euh, loolee nag euh, dañuy dem ba ci diwaanu Saint-Louis ànd fa ak Ousseynou Diop Habib Seck taataan xalaatu askan wi soog ko dellu si ci waxtaan wi. yi kilifa diine yi askan wi dañu rafetlu bu baax baax seen taxaway jamm ji nga xamanteni mom lañu la ñaan ci rew mi liko ñëk waral bokk na ci mbiru aji Sarr ak Ousmane Sonko mbiri ba mu ne ni jon jafe-jafe am ñëpp jàppoon ni rew mi dina tak ay kilifa diine ñoo juk dox ci tanku jamm ba lepp soti askan wi nanañu gisé jëf jundi mel ñi nekk ci diwaan Ndar geej ñu ci bare di rafetlu. rafet la parce que Sénégal lool lañ ko sa daal di ñun suñu Sénégal liñ ko tabaxé manam mag ñi suñu mam yi nit lañ daan défar dañ daan tabax nit donc euh, bo gisé tay ñom ñu ñëw fekk ñu fi ay meuble immeuble bobu liñ daan def si souf ak ciment si nit lañ ko daan def manam ay qualité qualité bobu moy dem ba yor rew parce que ñun ñëpp euh, ni ñu juddo ni ñu def ñu juddo ko dañ ñu daan défar manam na ngay rek kër dafa da nga daan ka dañ ko daan def dañu daan faf si suuf ak ciment di ko jafe jamono bi si nit lañ ko daan def. ñoom sax ñu jàpp kilifa diine ji jàmm lu ñu war di suuxat la te kilifa yi dañ ci am waar bu rëy boo xamante ni war nañ ko bay. jàmm moom kilifa diine yëpp maanaam seen rôle la ñu ñu koy dox di ko waxtaane di ci def ay jéego loolu am nañ ci droit maanaam kilifa yi saa su nekk loolu dafa mel ne mooy seen rôle sax maanaam taxawu réew mi réew mi di am jàmm saa su ne. ak ci nun ko mën a doxe ak nun ko mën a waxee ndax daanaka askan bi foofu rek lan leen di xaar ndax ñoom ñooy ñoo xam ne daanaka saa yu ñuy wax askan bi yëpp dinañ leen déglu ndax xam na ne ci liy jëriñ askan bi lañ mën a wax ndax réew euh, jaamu yàlla mun ñu ko def te jaamu amul. ñun ñun xale yi ñun loolu lañ ñu yare ba ñun sunuy doom dañ war dañu war a bàyyi kilifa dañ fi war a bàyyi loo xam ni kilifa yooyu qualité yooyu ñoo yor réew. te ñun defar nañu ba ñu mën a yor réew mais suñu ay doom defaruñu leen ba ñu mën a yor réew. seeni kàddu ñoom ñi nga xamante ni taal nañ leen micro ñu ngay rafetlu liggéey bi nga xamante ni def nañ ko ci jamono jile rawatina jéego yi nga xamante kilifa diine yi def nañ ko ñoom sax ñu ngay xamle ni ay régulateurs sociaux lañ te saa su ne dañu leen war a déglu état bi itam di topp seen i ndigal. kilifa diine yi daanaka seen rôle am nañu droit ak ak seen ak ak yelleef ci maanaam askan wi mooy di dox jàmm képp képp képp képp. ndax loolu képp moo leen fi bàyyi ndax ñoom ay dañ leen di woowee ñaareel ci nasaraan les les médias euh, maam régulateur social lañu. jamono jii nag kilifa diine yi liggéey bu am solo la ñuy def ci lu jëm ci wàllu jàmm ci réew mi askan wi di ko rafetlu jàpp ne lii warul dakk saa su ne bu fekkee ni dégg nañ ni jafe-jafe am na war nañ ci bay seen waar. ba mu mat sëkk. Ousseynou Diop Habib Seck jaajëf euh, ñu waxtaanee ko euh, soxna Faty dégg nga. Mm. li nga xamante ne ji askan wi wax nañu ko rafetlu taxawaay bi kilifa diine yi am ci réewum Sénégal. Mm-hmm. rawatina ci li fi xewoon fan yi le mbirum Adji euh, Adji Sarr Ousmane Sonko ay manifestation lu ci nekk daal amoon ci dëkk bi. Mm-hmm. ñu yëkkati seen kàddu lépp tege ci suuf. Mm-hmm. ñu ràññee ci loolu nag Serigne Mountakha ba Bassirou. ñoom askan wi li ñuy sàkk mooy yu mel nii bu amatee. ñuy teel a dégg kilifa yi. seen taxawaay régulateur social bi leen di wax. sa jàngat ci ci ci ci libre zone bi. xam nga euh, Mouhamed léegi régulateur euh, bu ñu nee diw régulateur social rek euh, wax na tënk na lépp. ndax hmm. koo xam ne su waxee ñu déglu ko bu teelee wax day am solo Serigne Mountakha Bachir ñu koy ñaanal mu yàgg fi te wér. borom mbégte mi gis nga li fi mujj ci coow li ak jéego yi nga xam ne def na ko ci ak yeneen kilifa diine muy loo xam ne yaakaar naa ni ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa réew bu ñu waxee dégguñu leen ñoom kilifa yi bu ñu waxee dañ leen di dégg muy loo xamante ni si dañ koy xaat ñoom tout le temps da gis bu jafe-jafe ne askan wi naan na kilifa diine wax na kilifa diine wax ndax seen kàddu mooy njëriñ te loolu nag du fi guleet ndax ku fàttaliku euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, moom it taxawaay bi mu amoon maam Abdou asi Sy Dabakh gis nga bi coow le amee dañ doon génne ay audioom mm-hmm. nañ leen tàppe muy ay discours yoo xam ne dafay euh, indi apaisement tension sociale bi nekk ci période boo xam ne dafa metti Mouhamed ci askan wi donc bu ñu déggee kàddu yu mel nii dafay nekk loo xam ne dafay dalal seen xel te itam ñëpp ñu ngi koy rafetlu ndax fii Sénégal gis nga taxawee kenn ku ne ak rudine bi nga jokk ñoom ñëpp tam ñu jokk ci suñu borom ndax eh, ñoom eh, ñëpp dañoo gëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ma ko waxee nag kilifa diine yi moo tax may wax muy xaadar murid tijaan ku ne am nga foo jokk te su sa sëriñ waxee da nga koy déglu koy déglu mm-hmm. euh, Makumba am na am na ñu jàpp ne euh, ñi jiite réew mi mooy mooy politique yi bon entre parenthèses mm-hmm. bu ñu matoon li ñu waroon a mat ñoom nit yi diine yi duñ jugee fa ñu nekk di lijjanti loo xam ne ñoom ñoo ko waroon a lijjanti euh, jàpp nga loolu mm-hmm. Euh, jàpp ma ni noonu la war a dem noonu la war a demee normalement. Mm-hmm. mais dañuy toll ci jamono yoo xamante ne ni ñoom mbir mi daf leen di ëppi loxo. Mm-hmm. xam nga juin bi sëñ Sidi Mokhtar yónnee yónni porte parole am mu ànd ak ñi mu àndal ñuy ñëw ci Ablaye Wade ni leen sëñ bi naana li muy dégg daa bëgg mu dakk ci la nit ñi wàññi ko. Mm-hmm. Ablaye waat ni retiré na projet de loi Euh, bu ko deful woon àdduna man lu doy waar mën naa xew foofu keroog nit ñi mënoon nañoo damm barrière bi dugg ci biir fekk fa député yi bu boobaa la fay xew du jekk ci deru Sénégal. Mhm. buñ jógee foofa duñ fa yem ndax euh, ku ku ku retireel sa bopp loi bi ci assemblée nationale. dina am ñoo xamante ne nii dinañu nan jàll mottali ko benn yoon. Mhm. te loolu yaakaar naa ni sëñ bi doxoon na ci ay tànk yoo xam ne ñu bëri rafetlu woon nañu ko. Mhm. lii itam bi mu jógee mu dem ba të ñëpp nga xam ne nag ñooy euh, institution yi nekk ci réew mi. nga xam ni ñoom normalement ci wàllu démocratie bu dee démocratie nag ni ko euh, ni ko européens yi tëggee noonu rek lañ ko war a respecté doonoon na loo xamante ne nii ñoom ñoo waroon nañu am ay mécanismes yoo xamante ne nii war nañ ko mën a lijjanti ci seen biir waxante wala jëflante ci anam yoo xamante ne nii fitna du am dara du am ba mu teere ji tribunal tribunal atte ko wala mu teere ji ci ay kuréel yoo xamante ne nii médiation lay doon wala médiature wala yoo xam ni danañ fexe ba lijjanti ko mais yooyu yëpp dañoo dem ba romb ko Sénégal nag yàlla baaxe ko loo xamante ne nii bëriwul réew yu mu am. dinaay dégg ñuy tudd Burkina Faso di wax Morona Baba mais wóoruma ndax Morona Baba am na sañ-sañ bu toll nii bii sañ sëñ Muntaxa am. ndax euh, lu manifestation yi gis nga keroog bi muy xumb xumb xumb bañ ne waa Touba ña ngay baj baj mun leen kuy manifester na nga génn dëkk bi double message la leen la leen la leen envoyé non seulement bu leen ko manifester ci dëkk bi mais bu la nee booy li ngay def génnal dëkk bi defe ko fi war ngaa xam ne jaadootul. àndu ci bi mu nee itam nañ ñëpp dellu ginnaaw te ngeen bàyyi ma ma dox diggante ñaar ñi ci ñi ci ñi ko seq ñëpp dellu nañ ginnaaw xam nga altine jooju am tiit amoon na lool waaye ba mu waxee lu bëri rës na lu bari wàcc na lu bëri rees na ñëpp déglu ko mu dugg ci man nag bu ci duggee rek dama koy ñeewante ndax diggante ñaari politique man damay yéene wuti kilifa diine muy dugg ci seen biir moo tax lu mel nii rek moo leen ci war di dugal crise boo xamante ne ni dem nañ ba mu romb ñëpp dépassé leen ñu ci soog a dugg parce que jëflanteeg politique dafa doy waar rawatina ci nitu diine fi mu ne nii ñoom dañuy wéy di politique alors que moom day wéy di lijjanti te loolu mën nañ moo tax dégg naa bi ci mise en garde yi mu ni li ma leen di wax wax ko ci kaw ñëpp dégg ko li ma leen di wax yéen ñëpp laa koy wax ñëpp dégg ko ñëpp xam terme de référence ku nangu xayrun ku nanguwul xayrun ma dellu si waat ci yéen ñi nga xam ne yéen ni moon acca médiation ne leen nii la mujj demee am na ci nag yoo xamante ne nii Faati mi ngi koy wax léeg-léeg ñu naan sëriñ si nañ wax sëriñ si nañ wax sëriñ si nañ wax loolu dama yaakaar ni léeg-léeg njàqare lay doon ak yàkkamti dégg baatu kilifa ba tax nit ñi parce que lii ñi ko yëkkati demoon nag ba ñoom ci seen bopp mu ëpp leen doole ñoom ñëpp ñu dem nag wuti sëñ ba ni ko léegi kat yow rek yaa fi sas yaa man a wax ndax euh, yeneen jën yëpp màbb nañ màbb màbb màbb màbb ba mu agsi moom nga xamante ne nii fi mu ne nii mooy ultime rempart bi moom rek moo fi des na sëñ bi wax nag ku yaakaar sëñ bi da ngaa da koo war a bàyyee boppam waaw comme mënoo moom moo la war a jox ndigal waaye yow mu dégg naa sëñ Saliou mas nañ koy wax sëñ bi waxal waxal waxal waxal mu dajale ñu leen ko doon wax ba pare ni leen lu may wax ñoom ñëpp ñu ni kemej <laughs> parce moom daanaka day am taxawaayu président boo xamante ne nii léeg-léeg day agsi ci moom. Mhm. ci mu am ay ay ay xabaar wala ay tolluwaay yoo xamante ne nii ña koy wax waxal duñu xam lam xam moom. Mhm. fekk na mi ngi wax ci suuf sax ay euh, amaana. te fekk wax ci suuf jooju du doon wax joo xamante ne nii da ko mën jëri ca kaw a kaw xam nga mook président de la wax nañ téléphone bi mbir mi di commencé. la ñu waxoon kenn dégg ko dañoo dem dem a ba nit ñi jóg ba fitna ji yow lañ ah sëñ bi kat yéen wax waxal waxal waxal waxal mais waxoon na ko. newoon na ko ñeent ñëpp yaa leen boole jaboote bis bu yegsee ci kaw seetal noo xamante ne nii noon lay sedde te gën ngeen fexe bañ génne ba ngeen génne ci noonu ñeewante gi moom am na ñeewante naa lool sëñ Muntaxa mu dugg ci ñaari politiciens yoo xamante ne nii ñoom ñaar ñëpp dañuy politique mhm. te ñoom duñ bàyyi politique bi mhm. lim ciy dugg dugg fi mu ne nii yaa ngi dégg chaque jour nga dégg ku sërxal kaddu goo xamante ne nii mënoon naa ñàkk loolu ci moom beneen bi ci des moom laay daanee la mooy bi Euh, amaguma ci avis définitif bu tranché bo xamante mais je penche toujours pour ñu bañ ko institutionnaliser parce que institution yi ci bopam ñoo mag mhm. ñoo ñoo ñoom ñoo ma ñoom ñoo màbb institution yeneen yépp yi nga xamné ñoy ñooy nekk ci démocratie yépp tëdd nañ bo bëggé indi benen institution ay conseil supérieur de la xawma luñ koy tuddé ak yu mel non nañ xaarandi ni ba ci kanam comme à chaque fois bu accès ba fi mu lijjantiku nañ continuer di xaar ni peut-être di peaufiner waat réflexion bi sëñ Abdou Aziz dégg na mo daan wax euh, sëñ Abdoulaye nañ toog fii ci suuf bàyyi leen ca kaw saa yu ñu demee ba jaaxle fii la ñuy fekk ñu lijjanti leen ñoom ñu delluwaat ñu yéegaat waaw hmm. effectivement muy la am solo jërëjëf ma ma Kumba Bey tànk da wax la am solo mooy même bu ñu leen dee wax loo nay fekk ñoom ñu xam war a wax te it mën a wax am na bi ñuy wax coowal masque yi benn kilifa mu ñu xam ne na kilifa yi sant taalibe yi ñu masque wu hmm. ñu ne bala ñu koy wax dañuy xam li ci masque yi ñoom bala ñu hmm. koy digal kenn parce que bu ci ngànte amee ci bopp lay lay lay teere mooy mooy mooy mooy mooy résumé li nga doon wax euh, Pape Djibril euh, implication kilifa diine yi ci li fi xew taxaway bi ci serigne muntaha am ak nit ñi yaakar ji nga xamantene ji manam xel mu dal mi ci amé ni ñu ci santé ba ba dëkk bi takul nyonyo li li ñu ñu fay ko gis-gis ban nga ci am comme li Fati wax ak mba c'est une longue tradition bo xamanteni euh, ñom ame. dañu ko amé xam nga problème bi posé wu moy amul ño xamanteni ñom nyom ñoo bayi réew mi bayyi ñeneen nguur amu fi

amoon ci niveau d'implication mais le clergé sénégalais dafa désolidariser wu woon à l'époque waaw te bu marqué woon seen solidarité jëmee ci moom rek xëy na day gën compliqué donc loolu mu nekkoon preuve de responsabilité bu mag ba tey jii bu ñuy dialogue islamo-chrétien dañ ciy indiwaat cardinal Hyacinthe Thiandoum hmm. ndax taxawaay boo xamante ni amoon na ko à l'époque bu fekkee ne tamit euh, ci république bi commencé 1960 dafa am lu ko jiitu religieux yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk këru diine yi te am nañu téye réew mi ndar ko képp ñooñu it mu mosuñoo jóg di yittewoo réew mi ak ñi ko dëkke ñoom ñoo amee woon seen jàng ñoo amee woon seen dund ñoo amee woon tamit seen ngëm seen diine te loolu boo ko dindee ci nit daanaka li ciy des du bari bi ñu ñëwee nag ba 1960 di tabax sunu réew dafa am beddi boo xam dañ ko beddi ñoom ñi nga xamante ni boole ñooñu nga xamante ni ñoom ñooy kër diine yi. Moi, li Makumba doon wax c'est-à-dire que bi ñuy tëgg une constitution dafa am constituant yo xam dañ ne a génne tamit c'est une réalité malheureusement ñu am une constitution boo xamante ni dañ ko inspiré ci cinquième république française inspiré ko tamit ci relation ba république française à mon clergém ñu daal di jël boobu indi ko fii importé ko imposé ko te acclimaté wuñu ko mm-hmm loolu tamit saa buñu démé motax moo buñu démé rek mu atteindre limite té bokku ñu tradition mm-hmm. ak ñoñu seen république ni ñu ko tëggee mm-hmm. ñom sax seen république ñañ ko tëggee sax ña def ay amendement di yéssalat di réformer di dëppale ak jamono di ki mm-hmm. waye bo xolé li ma ko wax légui né ñom dañuy politique problème bi posé wu moy seen bonne foi buñu démé ci kilifa gi ba mu déglu leen ba nopi kilifa gi da leen di génne ci guuta ba paré daa di rester sur saint principe directeur ñom ñu dem defi leneen et c'est ça qui pose problème mooy cër bi nga xamante ni moom la ñu war kilifa yi dëgg moom mooy manqué parce que politique rek la def en réalité moi nous ñuy def ba jot ci li nga xamante tout la fin justifie les moyens Moi, souvent ngay gis ne tractation yi des métiers, li ma Kumba wax aussi dëgg la souvent nit ñi dañ nan nañu wax fekk na ñoom ña ngay wax ña ngay ci di et c'est de façon permanente parce que amul luy xew ci réew mi ñu indifférent ci parce que c'est une la en réalité koo ci dem këram ay buntam du feex Sen njaboot le politiciens yi bu ñu la joxul dara sen kër doo fa toxo doo fa taxaw <laughs> loolu am parce que relation boobu lañ am ak ñom. Mhm. Feulé nak dañuy dem di len diis seeni soxla aduna waye di len leen diis soxla ay àllaaxira donc rapport bi da fay changer maintenant la tradition elle est là il aujourd'hui le système là a montré ses limites léegi nag jot na waxuma institutionnalisation de <laughs> waaye reconsidération moom <laughs>

Cheikh Abdou Ahad Mbake Gaynde Fatma ràññi nañ ko ci domaine yu bari bokku ci casquette politique bi membre APR ministre conseiller président de la République depuis juillet 2019 mu nekkoon tamit tête de liste Benno bokku Yaakaar ci élection législative 2017 ci département Mbake bari na ci liggéeyam lu muy woote ngir ñu investir ci Touba Mbake, surtout ci l'infrastructure infrastructure ak tamit ci bi Céline, bien en tant que président fondateur Pastef Consulting Engineering euh, dit ci xar tànk ci wàllu euh, microfinance alphabétisation ak adjoint au maire euh, commune de Touba Nek de ku l'organisation organisation Grand Magal de Touba Mon moyen président commission culture et communication magal Biti bi ci mon amoon contexte pandémie bu moom moo yoroon sas bi ngir fexe euh, li xalif bi digle woon yëpp ci wàllub respect geste barrière taalibe yi sàmmonteeg moom ñu noonu lenn ci leeral jëmee ci jaar jaar yi politique sax laa ko mën a tuddee ñeel gano D'clique tey di Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma euh, mu fekk si ñu ñu am mbégte lool dalal ko bon dalalaat ko sax ci D'clique la laay wax ndax màggal gi weesu D'clique bi ñu defee woon ca Touba bokkoon na ci suñuy gan amaan mbégte dalal ko Serigne bi Mbacké ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal jàmm. Euh, jërëjëf maa ngi lay maa ngi lay fay di nuyu aussi ñu bokkal plateau bi <coughs> di nuyu aussi mbooleem mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan. Euh, di am mbégte rek dellusiwaat ci fii nga xam ne sunu sunu kër la. moo tax vraiment bi ñu woowee hésité wuñ benn yoon euh, loolu aussi li ko waral mooy rafetlu taxawaay bi ak ak liggéey bi. donc di leen ñaanal sam nag sunu borom rek dañ leen kattanal. bu ngeen mën a wéy ci yoon nga xam ne ci ngeen am. amiin jërëjëf Mbacke ni ma ko waxee sànq mbégte la ñu am nga fekk ñu ci waxtaan woo xamante ne ji bu ko bu ma ko sama gars yi permettre ñu doore ko muy am na mbir mu xewoon ci ci réew mi. Euh, affaire yi jaxasoo woon ñu ci doon tudd Ousmane Sonko doon ci tudd Adji Sarr mu demoon sax ba jëloon yeneen i yeneen yeneen i dimension xalif euh, euh, général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké am ci taxawaay lu bëri tegee ci suuf déjà sa jàngat bu njëkk ci ci ci li xewoon ak taxawaay bi ci bi ni ci sëriñ bi taxawee. waa taxawaayu sëriñ bi ci mbir mi loolu day duñ ne gulet ndax fan gi rek maa ngi maa ngi li ci réseaux sociaux yi. ñu na daw serigne bi ci œuvre sociale def na ci lu mat 400 millions kon koku amna taxay bu bu dëgër dëgër dëgër ci ci rewum Sénégal euh te lolu nek lo xamni ne ci mom la bu dee ci yoonu Mouride foog na ci jamono Cheikh Amadou Moustapha ba léegi jaar ci serigne fallilu serigne Abdou hak serigne Abdou Khadir serigne salim ci Alaaji Baara Cheikh Sidi Makhtar ba ci mom ni képp fu fi mës nekkal serigne Touba rek. boobu taxawaay nga am ndax ñu ni ñu leen di xoolee moo di donné yonent bi sallallahu alayhi ci kaw suuf kon mbir mu am mu ne moom day xool bu fekkoon ñu baax ñoo ñi ban taxawaay lañ ci war a am moom mu am taxawaay boobee euh, kon te 1968 ngero bu doy war amoon na fi Serigne Fallilou nekk Touba yi rajo bi rajo Sénégal booba booba rajo yi bariwut daal ne Sénégal défense bi mi ngi fii réew mi ku gàdd soo ay ci yow la yem dem la liggéeyi te booba grève la boo xamante ni foog na ay français fu nekk ba tey da nga dégg ñu les 68 heures mai 68 mai 68 boo xamante ne bii liberté danger yu bëree bëri foofu la tàmbalee d'ailleurs euh, kon loolu nekkul loo xam ne guleel la suñ mën taxaa bi li amee noonu la defaat li ci ëppati solo nag mooy ànd gém ko ànd ak mbooleem kilifa dina nekk ci réew maintenant ànd ko même ak clergé bi nga xam day mel ne euh, képp kuy guide religieux rek laay wax de manière élargie Sénégal jóg nga am taxawaay boo xamante bi bii xat jàmmi réew mi wax ak ndaw ñi wax ak nit ñi wax ak les acteurs politiques delloo ci leen ba Sénégal retrouver toute sa sérénité qui n'aurait jamais dû perdre et motax mbir la mu ñi rafetlu di di ko si ñaanal yalla ak euh, di ko di ko jaajëfal ndax itam waxtu wu nekk war nañ koy war nañ koy tuubal ndax ku ko xam xam ne lu dut sunu borom jitteelu ku ko xam xam ne amul jotu def dara lu dut jàmm yàlla da ngay gis sax ñoo génn mu dox ci am ndox ab taw dem di julli ci kon kooku ñun peut-être ci suñu rëcc rëcc ak ci suñu manqué ak suñu bëgg àdduna waxtu wu nekk ñu koy teg firnde muy intervenir di ci wax di ñu lijjanti loolu aussi ñun amel nañ ko ak kon ñun ñëpp ñoo ko war a jégalu ñoo ko war a ak ñun ñëpp ñoo ko war a tugal ko wax baal leen ma de daf ko wax sànq mu ne euh, am nag ñeewante ci muy dugg ci way politique ndax politique seen dañoo saay-saay moom mu di kilifa taxaw taxawaayu Serigne tubaa ci kaw suuf muy moom mu yeneen kilifa yaa dugg ci diggante way politique ñaare bu la ci boo xamul fa nga yem dëgg wala nga amuk taxawu dëgg yeddaange nga nga ci mujj léegi politiciens yi mu ko séqal tey bu fekkonte ne am nga looy xaar ci ñoom wala comportement bu ñu war a am donte fexe nañ ba engagé Serigne Ba boobu moom mu jël engagement dugg ci lool loo leen di loo leen di conseil bon baat boobu tegginuwul baatu bi nga jëfandikoo léegi man duma <laughs> maa ngi koy jéggalu ban ah, baat moo moo moo man man jaarat euh, donc xañ na politique xëccu àdduna la hmm. moo tax kenn ku ne aussi da am taxawaay boo xam ne kenn ku ne aussi da ngay kàmbal sa morom da ngay naxante am na ci. Euh, li nga xam ne ñoom peut-être barki démb sëñ bi def na benn communiqué. communiqué bi euh, gis naa mu sant ci way politique yi ci sant ci kilifa réew mi ci ni nga xam ne noonu la ko déggale sant ci itam ku jégi ci ni nga xam ne ñoom itam noonu lañ ko déggalee ba bépp manifestation bu ñu doon def ñu teg ko fi suuf. donc foog naa ne kon loolu day wane ne te moom saa su nekk xam na fa muy war a yem ndax dafa am dafa am frontière frontière bi mooy lu baax frontière bi mooy lislaam tànkam du mos a gis ci àddu kon boobu garantie lañ am ci moom xañ na coono yi ñu koy teg li mu wax dëgg la war nañ ko jéggal war nañ ko tuubal parce que tey jii dañ ko war a préserver dañ ko war a protéger dañ ko bàyyi mu nekk ci yeneen ci ci ak jàmm yàllam ndax aussi bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu fàtte ne ëllëg mooy suñu yaakaar ngir xett li kon am lu ko war diggam ak boroomam ngir togo suni euh, suni manquement mais japp na ne euh, du ci du ci dem ba gatch diko dal ma ngi sax tup ci bat bi loolu mënta nek te itam bu len fatine am na ñoo xamante ko wër diko japp ci liggey bi nek ay ndawm di dem ak ak dikk kon fogna aussi wet gogou ñom ñom ña nga xam ñoo nek moom liggey ak mom matuwaay yi nga mom lañu wara ngir arko. ko ba xaj na yenn yi du agsi ci moom foog naa danañu ko def ñi nga xam ne aussi ñoom lay xettali di dimbali itam nag danañu ko rus ba am na yooyu aussi donte ñoom xam ne ñu ngi ko seq seen biir bu suñ ba xasee dugg si rek kenn dana am loo xam ne moom lay moom la ñu réservé. laa bëggoon waxtaan ak yow mooy ñi nga xam ne ñoom lay xettali euh, comportement bi ñu war a am ak yow li nga leen di digal loolu laa loolu laa loolu laa doon waxtaanee. ma ma bàyyi la ak Fati euh, Pape Djibril ak ak ak Makumba. Euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyuwaat di rafetlu encore une fois sa teewaay si plateau bi Mouhamed dafa euh, dugg sànq ci question d'actualité man foofu laay taxaw. Mhm. Euh, muy coowal Ousmane Sonko dafa dem ba jux leneen gis nañu récemment récemment émeute yi nga xam ne am na ci réew mi ñu bëri nag joxoon ci baaraamu tuuma ne nguur gi xëy na dafa lacc ci ay ponk yu bëri ndax ndaw yi génnoon nee ñu kenn ku ne ak li la yëkkati ci mbedd mi lu ci ëpp ci ñoom nee ñu seen boolu mu ñu kaay dafa fees. Euh, ban gis-gis nga am ci lu mel noonu. Euh, waaw analyse yi di def euh, bari na xëy na kenn ku nekk demoon ci mbedd mi yaa xam la la fa la la fa yóbbu woon nee nañ am na ñoo xam ne ay coono yu ñuy dund moo leen fa moo fa yóbbu am ñoo xam ne jàppale un leader politique moo leen moo leen taxaw du jóg kon ku ne rek ak la nga xamante ne bii moo ko moo ko taxaw du jóg mais li li nga xam ne mooy mooy li am solo moo di ñu jàpp ne. xañ na ngelaw loolu fi jaaroon di seytaane soo xamante ne bii naroon naa indi musiba ci réew mi ay loxo yu baax jóg fekk ko ba mu ba mu jàll mais mbir la moo xamante ne bii surtout ci contexte bi mu amee woon ñu nekk ci vraiment ci dans un état ci ci en tout xam ne lépp normal la woon nit ngi di dem ak dikk liggéey xëy xëy rek loolu xëy xëy këpp suñu kaw mbir mu mbir mu xaw na doy mbir mu doy waar la mbir mu mbir mu dis la mais li am solo tay ji modi kenn ku nek tiré ci ay leçons da ku ne am nga ci am nga ci wàll bu tiré ay leçons nak ni jël say responsabilité doxal la nga wara doxal mais li nga xamante ni moo amoon suñu borom sutural ni ba du ba du amaat. alors président mom bi mu communiquer communiqué dafa wax né il a compris wax né sax dégager na 350 milliards sur les trois prochaines années pour waaw pour l'emploi des jeunes. euh tey jii li mu ne il a ak yow jeunesse bi euh, contestation bi ni nga gisee mu am doole ban jàngat nga ci def. lan nga jàpp ne moo sooxee xam nga xam nga dañu nekk ci réew moo xamante ne bii. 70 pour cent yi nee nañu amuñu fanweeri at. même boo jëlee moins de 40 ans sax da ngay dem ba da ngay dem ba 80 pour cent. Euh, baal ma baal ma sëriñ bi Mbacke parce que il faut que ñu changer micro mu ñëwaat ci laaj bi nga xamante ne ji laaj nga ko jëm rek ci euh, li njiitu réew mi Macky Sall fas yéene am ne taxawaay bokk na ci euh, ñetti téeméeri milliards ak juróom fukk suma juumul. waaw ngir ngir ndaw ñi. Uh-huh. et c'est important parce que fii ak bi di jeex. mandat bi fii ak jeexal moom 2024. question bi dootul dootul jóge ci table ci mhm. mhm. parce que c'est une question cruciale bo xamanteni régime yi fi jaar yépp dañoo am jafé jafé ngir inscrire ko ci dynamique bo xamanteni dinañ ko mën régler. moy l'emploi des jeunes. moy xalé yi. Mhm. au-delà même de l'emploi c'est la prise en charge de la de, de la jeunesse. ci niñ ko war jël en charge. ba mu ba am solo lool. dafa des parce que du question bo xam da ngay xey tay régler ko. li ngay def moy da ngay jël rendez-vous avec les générations à venir. Mm-hmm. Ah, moi dans da question bi dina tambli ji ji ak 25 ans les fruits de ce labeur là les mi-jour. je pourquoi politique yi euh, am jafé jafé bobu une ñom urgence bi mom mo leen gëna yittel moy li fay à tout prix. Mhm. tu ne règles pas le problème mais tu le déplaces loolu motax jeunesse bi daf lay dabat loolu motax tay serigne bi wax na ko léegi réewum réewum ndaw lañ yor. Mhm. Hmm? donc euh, soixante dix pour moins de 35 ans. Mhm. soixante pour cent amuñu vingt ans. Ah, xam nga xam nga dañuy faral di wax ne. ndaw moom deretam day tàng. xam nga loolu lépp looy def tey. Mhm. ci wàllu élevage. jeunes yi ban place lañ am ci élevage. ban place lañ am ci agriculture ban place lañ am ci éducation ak formation. ba am lañ am ci pêche. xoolal li dee ci géej gi. Mhm. place lañ am ci innovation. Mhm. ak numérique. donc dañu am loo xamante ni moo euh, ba ci le département de la jeunesse ak les politiques en faveur de la jeunesse. Mhm. ba ci gérer xale yi dañ naan dafay sax action de solidarité la obligation la action de solidarité C'est la que la souvent di def tamit président président nous président mayu le mhm. responsabilité assumée mission bi très bien donc changement de paradigme et changement d'approche, que nous parce que li que nous souvent du que nous savons ñu xam li mais infantilisation moo tax duñ ko mën régler. très bien muy lu am solo ñu ñëwaat ci li nga laaj sànq sëñ bi mi ngi won euh, sëñ Abdou Lahat Mbacké Gaynde Fatma mi ngi don euh, tontu ya ngi tollon ci Sénégal day réew mo xamante ne ji jeunesse bi dañ fi am doole. wa xam nga euh, ndaw ngi dañu dañu bari ci réew bi mais suñu principal problème moy am nañu problème formation ak qualification loolu mooy principal problème parce que tay bo jëlé tay ji rek bo jëlé monsieur le président de la république tey.

ça veut dire que a un problème ci sunu nous parce que société bi stigmatisée stigmatisé yenn société bi aussi moo dem valoriser tout, ni a valoriser liggéey bu bi peut-être lijjanti ak la il pose problème il faut que nous ci yenn fondamentaux qui nga société valoriser yi société au niveau des pouvoirs publics président de la république je vous ai compris ça veut dire que évaluation bi war vous am ci vous avez dana am bu Vous yi nga au niveau de la mu ko vous ndax le fond sera logé à son niveau au niveau de la présidence mu vous que vous vous la ndax mu kët vous ci su boobaa jàpp naa ne ci bëgg foog na dina ko am ñeneen ñi aussi nag ñi nga xamanteni ne mooy politique gi ñu xamne tay tey ndaw ndaw li la aussi nga am ci mom kaddu am ci mom baat dafa am ci loko wara xirtal muy formation bu mo doon wax muy liggéey bu mo ma wax tay gi dans les partis politiques on ben parti boy dem ba ma école du parti y a plus de formation dans les partis politiques dañuy soxla rek pour la mobilisation jox la t-shirt 2000 francs ay ci après alors que c'est pas ça la politique est très noble c'est une école de formation Si tu veux dañ la encadrer jàngal la la ba nga mag un citoyen modèle Ce Qu'il faut dire aussi nous, nous nous, ñu ñu parce que c'est c'est responsabilité malheureusement dañu am école day joxe xam-xam sabab ci école université ñu parce que peut-être ndékkil tey doyut wala neexut nga dem ci daara ja mm-hmm. yar différence ci sa ci sa analyse wax nga ni problème qualification dafa am ci nit ñoo xamante ne nii amuñu ay lijaasa jànguñu loo xamante ne nii bënn na ba man leen may liggéey ak itam nga ni bii di ñëw nii dañ koy logé waat à la présidence mais pour man loolu am na ñoo xamante ne nii am nañ qualification professionnelle munuñoo liggéey bu yàggut rek ñi ngi dégg ay enseignants yoo xam ne FASTEF lañ génne woon ëpp na juróom-benni at ba léegi mënuñu leen dugal te gouvernement bi soxla na ay enseignants beneen bi DER bi présidence lañ ko logé parce que délégation générale la te loolu terewul ba légui liñuy ragal moy eh, li ñu leen doon djign dañoo politiser financement yi ba fimné mu mi ngi am est-ce que ñaar yoy bu fekkee ay variante la ci sa analyse nekkut lo xamante ni war nañ ko dépasser wat ci fiñu ñu jëmaat ci solution. euh, euh derbi contrairement ak ak lu bari di wax quand même. Hmm. man loolu man na ci am na lu ci mën a parce que am na lu ci luma ci gis bo ñëwee dans le département de Mbacké DER la ma financé ëpp na un milliard ëpp na un milliard c'est li ñu wax aussi dañ koy politiser. du ma ne politiser wuñ ko parce que aussi ñoo koy wax xaw ma fan lañ ko teg. mais man gis naa mbooloo mu bari mu ànd ak président de la république te mënuñu cee am ba ña ngay kaas ak ña am na ñoo xam ne sax génnoon nañ sax ci rajo bi di ci wax. bi hmm. nga xam ne Pape Sarr ñëwoon na Touba. Emilia pour bi. loolu mooy yëf yi xam nga xam nga tey bu fekkee jëri bi euh, financement. day am lu ko jiitu tàggat da ko war a jiitu tàggat.

mais impact bi anamu. mais am na ñoo xamante ne bi tey ji am nañ ci liggéey tey boo tey boo ñëwee tey à Touba tey rek ña nga xamante ne bii ña fa nekk di fa dawal ay charrette der bi dajal na leen jël xaalis jox leen financé leen ko boo ñëwee tey ji à Touba am na ñoo xam ne ay jigéen lañu di yëngu ci wàllu transformation de de céréales di yëngu ci wàllu savonnerie di yëngu ci wàllu teinture ak yu mel noonu ñu ci bare bare tey ji der bi financé na leen te jigéen ñoo ngi tey jii boo gisee ak difficulté yoo ñu ngi koy dund.

bi suis mi amé dafa rapport hmm. en conseil des ministres ci rapport bi ko milliards yi dugg ci jeunesse aussi pour man ventre mou bi politique publique yi ñu am moy évaluation bi koy def ak ndax dañuy une évaluation sur les chiffres une évaluation sur les impacts réels. si une évaluation sur les impacts taille. pour pour ñu mandargaal ñu ko génneel ñu ko jafe-jafe bu mag la ci gouvernement bi am loolu pour yow sooxe bi fan la nekk. Euh, gaw ma ne jafe-jafe lay doon pour gouvernement bi mën a évaluer politique publique yi nga xamante ne ñu ngi koy mettre en place. Euh, parce que tey bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu fàtte ne. Hmm. avant ñu mettre en place DER bi dañuy def xaalis di ko jox ay nit pour ñu koy pour ñu koy saytu. Hmm. am na ay difficultés yu tara tara tara tara yoo xam ne moo fi nekkoon. ñu dikk tudde ko financement rapide pour que mu gaw té bo boo également tout recouvrement yi nga xamné amna dans certaines régions li ma ci mujj gis wa na yàgg touti ñu dem bo demee dans une région comme Ziguinchor amna na taux de recouvrement de plus de 75 à l'époque ki nga xamante ne bi parce que parce que ça c'est un indice pour évaluer ki nga xamné ne liggéey na fay di laajaat ça veut dire que amna rentabilité ndax rentable dafay bi donc nous nga xam ne la fonds déjà rek c'est un premier indice pour nous amener à lii kat mi ngi mi ngi dox maintenant pour nous évaluer ko écoutez mën nañu jël ay cabinet ñu xool impact réellement disons sur la création des emplois certainement ils ont des des chiffres il y a aussi donc les corps de contrôle de l'État qui en moment ou un autre donnent ci dugg ci

donc loolu aussi impact na ci. opportunité la mbas mi. ci koo xamante ne bii. daa wane daa wane rek daa wane faa rek. non non non je ne pense pas je ne pense pas dama ne la man je dis opportunité dans le bon sens. ci koo xamante ne bii teeloon naa jóg defal ay masque ci atelier am di ko jaay kooku opportunité la ci moom. moo tax ma dans le bon sens. <laughs> mais mais man foofu daal la waxee. mais wanul fay de non non wanul fay. mais mais euh, mbas bi c'est difficulté. parce que boo tey boo dee xaar taux de croissance bu 7 xëy peut-être 0,8 mais ça veut dire qu'il y a quand jafe-jafe am na. ay rëq-rëq am na Fati. waaw fi Pape Djibril nekkoon sax laa bëggoon mu mu taxaw fii muy opportunité yi ak ak faay man du ma si mhm. ñëwaat mais li nga wax sànq ne ki toog atelier am defar ay masques man j'ai envie peut-être di wax keneen koo xam ne beneen Sénégal bu yëngatu peut-être ci ay yoo xam ne peut-être ñu ko doon jéggaani euh, bu fekkoon tey amoon nañ ko ndax bi mas mi bi ñu tëjee réew yi ku nekk xam nga li nga ñàkk ak li nga mën ak li nga mënul foofu aussi est-ce que jàppoon ne war nañ fi mën a gën a taxaw nga xam ne suñu acteurs locaux yi fi nekk di def ay jéego ñu gën leen japp gën leen dëgëral. mais bien sûr mais loolu def nañ ko parce que parce que bo jëlé euh, le le plan d'action prioritaire euh, bi yëf amé dañ ko dañ ko dañ wax ajuster accélérer donc dañ ko dañ ko dañ ko tëggaat mais biñ ko tëggaat ban constat la def et et et te loolu yag nañ ko wax moo ne suñu comme comme yi pas Sénégal mais comme comme yi Afrique yi c'est des économies extraverties ndax dañ ko donnu ci tubaab bi tubaab bi nekkoon fi nekkal fi boppam daal ne kat waa Sénégal naa jële ceeb ci dëkk sàngam jox leen ko ñu ko lekk ma bay la loon gerte bay la loon lii man di ko jël di ko génn réew mi su ko defee day benn moom rek moo fi nekk di am euh, disons di di di nekk indispensable ndax moo ne ci diggante bi moo jële fee di indi fii di jële fee di yóbbu fee fexe ba kenn fexe ba kenn du moom sa bopp kenn du man sa bopp mais tey jii bi ñu defee constat boobu lan la ñu wax ñu ne léegi kat li nga xam ne mooy priorité bi moo ne ñu am suñu sécurité moo xam sécurité ci wàllu ci wàllu yu jëfandikoo la moo xam sécurité ci wàllu ci wàllu garab la moo xam sécurité ci wàllu santé la ñu ne nañu fexe ba dëgëral suñu secteur privé local bi fi nekk te loolu firnde bi ci am suba ku jàmbaari Abdoulaye Dia ak ñi àndal ñi ngi ñi ngi nar a démarrer

def ci valeur ajoutée pour que ëllëg diggante bu gàtt moom mi li muy sol wala yóbbu li ngay sol peut-être coton bi di jóge fii ci biir Sénégal. sauf que amoo industrie. ci lañ jëm si. kooku c'est l'autre pilier. xam nga dañuy dañuy door maa ngi lay maa ngi lay wax donc mbay bi la ko tabaat mooy leen wàllu éducation bi.

boo ñëwee koo gis maanaam bay na ba ba mi ngi sant yàlla. Hmm. mais day am loo xamante ni xañ na situation bu ponctuelle la bu posé wu. loolu dañuy jéem a seet naka lañ koy saafara pour jàll mais su sûr que politique bi ñu jël ci ci wàllu mbay mi yàlla suturaal ñu ba tey jii ñu nekk ci wàllu gerte am nañ lu mat 1 million cent mille tonnes loo xamante ne bii xañ na musuñu ko musuñu ko am ñu ne tey bu ñu jëlee bu ñu jëlee lu mel ne dugub ak yu mel ni ñuy dundee.

mën nañu bu ñu doxee diggante bu gàtt foog naa li ñu bëgg suñu borom mën nañu wax def. mais xam nga xam nga lu ma jaaxal euh, bala ñuy dem ci beneen sujet mooy sànq wax nga ko. Mm. ay jéego yu def ci wàllu njàng mi. Mm-hmm. wax nga politique bu baax boo xam ne am nañ ci yéene pour wàllu mbay mi. secteur bu nekk gouvernement bi mi ngi ciy góorgóorlu mais li jaaxal nit ñi mooy dañ ciy def xaalis di ci amal ay ndaje am ci ay yéene mais saa su nekk da ngay dégg ña nekk ci secteur booba di ñaxtu li nga tudd njàng mi moo tax sama xel dem ci lan mooy expliquer loolu. Euh, xam nga ndar xëyut xëy sotti te lépp aussi munta munta jàngandoo hmm. te te te boo jëlee sunu suñu réew yi di réew yoo xam ne ay ay réew yu néew doole lañu problème yu bari eh, quand même munuñu xëy xëy rek mel ne peut-être réew mi gën a avancé ci ci monde bi hmm. et quel que soit la volonté de ceux qui sont là quel que soit également seenu xereñ ak seenu bëgg réew mi tout le temps dina am ay ay manquement dina am ay est-ce que gouvernance euh, est-ce que gouvernance bi plus gënuñu que que moyens parce que xam nga asiatique à un moment donné ñun ëpp ñu leen moyen ëpp ñu ñu mais nous dañu comprendre rapidement que les ressources même si elles sont limitées la créativité est illimitée la créativité c'est dañ koy gouvernance sobre et vertueuse au vrai sens du mot waxuma le slogan mm-hmm. <laughs> ba pareil, boole ko ak éthique boo xamante surtout ci ñu nawlonte ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk infantilisation bi nga wax léegi parce que bi ngay wax agriculture yëpp man gisuma <laughs> man dama li ngay wax agriculture yëpp ah, man waxuma infantilisation yaa ko wax non man dama ne damay dëggal infantilisation bi parce que li ngay wax mhm. agriculture yëpp man paysannerie lay gën a gis mhm. parce que boo ne agriculture rek man maa ngi xool xale bi nga xamante ni gis na ne opportunité d'affaires nekk na ci mbay mi ba nga xamanteni lam fay jëlee lam mu fay fayeeku ci chaîne de valeur yëpp muy jigéen ñi ak xalé ya dina la permettre nga mën soppi sa dundu mhm. fayal sa jang say njabot bo feebaree mën a faju ji lolu mo des c'est-à-dire que motax ma japp ne ambition bi ñu am ci agriculture comparé aux autres pays yi nga xamanteni dañu sukkandi ci agriculture comme Maroc da ngay gis né dañ ci def ay djégo nous sommes encore très minimalistes et pas du tout ambitieux par rapport ak li nga xamanteni mom la ci bëgg chaque année on a des problèmes par rapport ak semence distribution de semence par rapport à la machinerie est-ce que japonais on a beaucoup plus un problème de gouvernance ba lépp loo xamante ni war nañ ko joxe mu egg fa mu war egg qu'un problème de de moyens. on a surtout un problème de de de de, paradigme et de transformation sociale. man loolu laa gis. Manam. Euh, su ma la waxee loolu moo ne tey jii tey mbay mi am na ñoo xam ne pour nga jëlee leen Dakar gii yóbbu leen ci àll bi ñu bay c'est tout un problème ak condition yu ñu fa mën fekk parce que gëm nañ ne bay égal baadoo la ñu ñu ñu jëgal ma ci terme parce que man góob ma ne baadoo la am donc loolu suñu mentalité la donc dañu war a changement de mentalité moo war a am moo tax transformation sociale parce que lu man di am ak lu man di xew ñun la ndax ñun ñoo dëkk Sénégal ñun ñooy ay sénégalais quel que soit nag les positions day varier rek ku ne jaar na fi dem ku ne jaar na fi ku ne jaar na mm, mm, mm, donc c'est c'est la société Euh, tay ji yaa ngi wax problème mu problème mu bay. Hmm. am ci xaalis hmm. yóbbu sa doom école. Hmm. mais tey am ñu xam na nga dem ci àll bi mais lu lay wax man sama doom dugg école. et ça c'est un autre problème. donc au plan social amna liguey bo xamne dañ ko wara def bu ñu bëggee les pouvoirs publics li ñuy wax ñi nga xamanteni bi ñoo nekk ci ci souf man ko dik kan moko wara def sinon ça devient un jardin de sourds. kooku ça incombe à tout le monde même yéen hommes de médias am ngeen ci rôle parce que dañu leen mm. et puis vous avez énormément d'influence tey da ngay xool mais bu yàgg yàgg lu fi amoon ay diisoo nga daan dégg mm. muy émission yi impacté mais tey looy gis tey looy gis donc loolu ñun ñëpp dégg naa benn psychologue lu expression ba neex la muy wax naan dañu war def ndëpp national donc ñun ñëpp ñu war a xam ne problème bu mën di am sur problème problèmes en tant que sénégalais. problème bi mooy li initiateur. sunu problème en tant que sénégalais. mais mais le gouvernement est en train de faire des efforts ils sont en train donc de de dégager donc des moyens avec une stratégie et une vision assez claire. mais maintenant. waaw bisimilah soxna si. voilà maa ngi jégalu de yaa ngi kii maa ngi lay dog <laughs> voilà en fait parce que da nga nga duggoon benn point nga uh-huh. euh, bu si am est ce que di changer sëriñ bi parce que tey boo xoolee euh, jeunesse bëri ñoo xam ne dugg nañ ci DER bi bëgg ay financement amuñu mais ay projet yu dëgër lañ lay tegal yoo xam ne ci mbay lañ ko wékk ay doomu baykat lañ amaana li leen manqué mooy jafe euh, jumtukaay mm-hmm. parce que nekkatuñu période boo xam ne exploitation familiale moo lay doy mais sooy bay da ngay am vision ak foo xamante xamante ne si di nga mën a jàppale sa askan. dañuy dañuy sant yàlla bu changement amee. xam nañ baax a baax àll bi xam nañ la fa nekk. Ah. tey jii tey jii problème mi nga xam ne exode créé na ko dans le monde rural kenn xamul nu mu toll. même désertification bi nga xam ne mi ngi avancé dikk loolu sax moom moo ko yokk. ba nga dem ci àll bi c'est vide ñëpp ngi diggante Dakar dans la banlieue ak Touba. dootoo fekk benn bara boo xamante ne bii mi ngi ci àll bi tey ji di di bay da war a bay Daw, taw ci Sénégal ay ndaw lañu mais nous fekk ndox mu day non, ci ci ci rew euh nga gis nit ki ñetti lay liggéey wala maximum huit mois ki des yëpp de tok ci garab bi di dam ak waxtaan et dans ces conditions naka aspirer à une certaine situation c'est pas possible donc madame il faut même changement de mentalité Nous savons que li nga a pouvoir public peut-être ñi ngi koy def ci Toutes bi mécanisations. nga lay mécanisation ñaata tracteur dañu dugal ci àll bi Il mu toll yi ma Inde yi Brésil gis dañ koy jox tracteur qui ci tracteur ça c'est la faute à qui à qui

diko intégrer dégg naa léegi nga fi tuddu yo xamni ne ñu tabaxa suñu réew nangam nangam parti c'est important mais lolu nañ ci baye xel nañ ko ci walé fexé ba mm-hmm. en retour au fondamentaux pour que ñu nga xamante ne li nga xam mo tabax suñu suñu société am nañu ko on a ces valeurs là nañ ci delu et maintenant avec la vision et l'aide des pouvoirs publics qu'ils mettent les moyens qu'il faut que ni ngi dem liggéey

ndax yow déjà politique bi nga entre parenthèses le ministre conseiller bi nga avez, jàppoon nga ne report gi un na ñàkk wala bon ce ce ça dépend des des conditions. Il tax ñu ñu reporté parce que si nous ñu wootee bu dialogue national nous jii pratiquement acteurs yëpp nekk ci. Euh, ñu nekkat sur 27 points sur les 25 nous avons ci accord élection locale c'est vrai tout le monde monde mais on a même fixé nañ on a parlé du 27 février voilà donc ça c'est déjà très bien donc je pense que les li sont solo date bi fixé nañ ko euh, février 2022 hein. et les législatives ça va très vite Les législatives c'est prévu au mois de juin 2022 euh, mais finalement on sera 2022 année électorale jóge ci lii jëmati ci lële est-ce que japoné tamit problème calendrier électoral bi waruñu ko gëna saytu ba nga xamanteni dinañ def moyen de politique moyen d'élection nga xam dinañ mëna a jublu dëgg ci liggéey bi est-ce que loolu tamit c'est pas un mal bo xam dañ koy def suñu réew. le mal c'est c'est c'est le manque de rationalisation de la vie politique. ñi ngi ni ñun ñi politique li ñu waxtaanee fii instant bi ni 80% salon yi boo demee politique la ñuy waxtaanee. Mm-hmm. au Sénégal il y a plus de 300 partis politiques dans un pays peut-être de légui sax lañu mat 16 millions d'habitants donc ça c'est un problème moom laa la wax léegi am na loo ne ñun ñëpp la. ñun ñëpp oui mais donc, mais mais dafa am ñoo xam bu c'est pour régler les problèmes. c'est-à-dire que yéen ñi nga xamante ni au pouvoir ñu continuer ak yéen di constater les problèmes. on les constate pas on est en train de les résoudre. c'est pour ça qu'on a fixé la date des élections au 27 février et ça c'est un acquis le reste mois de bu ñu mois de juin.

laaj bi amul tontu wala. laaj daa wax il a fait affirmation <laughs> hein mom da wax laajut dafa wax. est-ce que seen mbër warna bok mom mom da wax laajut dafa non j'ai interprété la constitution. dafa wax moom dafa wax laajut dafa <laughs> d'accord léegi bala ñëw ci ndax mbër mi bala ñoo ñëw ndax mbër mi war naa bokkam déet ngi nekkon ci développement mu di jugee ci euh, local yi dal ci législative yi man ma tek ci présidentielle yi ci ci wara yi ci mhm. wara a ci war a nga ne li ñu wara def moy rationaliser euh, c'est-à-dire la vie politique au Sénégal. parce que Sénégal ku mel ne parti politique loolu tamit ku ndax ñu créé parti politique. loolu problème la. ça c'est vrai. il faut ñu xool dëgg suñu biir ñu nangoo seetu. xool li nga xamante ni moo rafetlu ci li ñuy def. <laughs> kenn ku ne def effort. nit ñi nangoo am kilifa. Mm. xam ne kilifa mënut a ñàkk. te gis nga ñi lay sànq di lay créé le parti politique gis nga boo créé ba pare boo gëstoo doo gis kenn. kooku kii créé sa problème boobu lay amaat. ndax comme mu koy créé def ci xaalisam ëllëg ku yëngu mu ne la doo ko fi wax. et puis et puis ñii ñëw ñii ñëw di la sóobal naan demee élection. <laughs> Euh. sa xaalis rek lañ bëgg a lekk. les opérateurs booy opérateurs boo boo dee ba ci ba ci takkusaan côté ba.

Est-ce qu'on est digne d'être les héritiers de ceux qui ont été là avant nous, de ce qui ont construit ce pays-là boo xoolee jafé jafé yi nga même le discours dans le champ politique hmm? Tu gi da ngeen dem élection le ne est un candidat confrérique moi je peux en parler parce qu'on l'a vécu en 2019 nous ne un candidat tel tel tel xeet tel waaso mais mais ak loolu que lañu jëm ci biir Sénégal fan la jëm ci biir Sénégal. parce que da nga dugg sànq euh, euh, la foofu ci mairie ba Touba ku nekk xam ne. Touba taalibe laa fa. waaw mais am nga fa am am nga rôle quand même sëñ bi foofu ci ci mairie ba. que Mouhamed Sànq yaa ngi koy junju. te candidat la voilà. Euh, candidat la moom day affirmé rek. <laughs> donc donc donc nañ dugg ci infrastructure parce que déggoon nañ ngeen ay infrastructure comme ni ma ko waxee. mais mais mais comme moom. Euh, euh, Pape mooy affirmer te moom mi ngi fi wala <laughs> affirmer wala wala wala infirmer wala confirmer laaj bi mooy candidat nga am déet. candidat ci lan. ci mairie ba. je ne suis pas candidat euh, tontoo daaw ci màggal gi mais réponse daf ko neexul c' est pour ça il revient. kon baax na léegi léegi Fatou yëggal. non je ne sais pas parce que parce que d' abord d' abord il faut nga fàttali. Mm-hmm. nit ñi Touba mairie ba na mairie ba na muy dem. na muy demee sëriñ bi mooy tànn. te loolu dama jël la ñun ñi dañ njabootam dëkk Touba mais Sénégal gépp dañ ko jox boobu cër. Mm-hmm. C'est ce que je ko ko d'accord ni ma dellusiwaat sama question muy dëkk la le xam ne day sur le plan démographique sur le plan économique sur l'infrastructure, wax lu jëm ci wàllum infrastructure euh, peut-être état mais il mairie ba ndax mën nga wax yenn jéego prendre en considération également la population qui devient de plus en plus importante. non mais maire veux dire, fan le maire a créé quand même près de 300 emplois dans ce contexte extrêmement difficile. loolu loolu mooy ñi nga doon wax léegi li ma doon wax léegi ah, am lu am solo la quand même mm-hmm. parce que aussi nit bu defee lu baax nañ ko ko nañ ko nañ ko ko nangul fii jamono gi toll nga nga nga fexe ba ñetti téeméeri gone am ay xëy di xëy kenn ku nekk am am loo xam ko yóbbu këram bu weer dee loolu foog effort la euh, boo boo tey ji boo fa demee ña ngay ña ngay tabax ay poste de santé ña ngay yokk aussi ndox ma barki dem sëriñ bi dénkaan na leen ndox mi ñu leen kër na ngeen ci liggéey parce que ndox mi chaque année ñu def ci ko mënul jeex te gis nañ ne waxtu ne problème day yokku kon na ngeen ko saytu ñu tegal benn comité ñaa nga ca maire ba maire ba dégagé na xaalis foog naa am près de 500 millions foog naa moom lañ moom lañ budgétiser budgétisé daanaka danañu ko ci def bonam nag saytu ko déjà jël ay ay conducteurs de forage parce que même nekk forage ëppatul ay conducteurs loolu wax nañu ko barki dem jël ay conducteurs de forage jël leen fa di leen fay ñu koy toppatoo donc maire ba am na jéego yoo xamante ni ma ngi koy euh, ma ngi koy seq quand même loolu loolu mooy dëgg. Makumba waaye ah, demal ma Makumba. Euh, ma ñëw ci laaj bi nga doon wax sànq. est-ce que sëñ bi yaa ngi teew ci réunion conseil municipal yi normalement. ma ci lu bari de. ndax lan. parce que gisu bëri sama présence am na fa benn njëriñ loolu hmm. bu ñu ma soxlaa nag. parce que parce que maire maire ba fa nekk aussi am loo xam ne moom la ñu moom la ñu seq dañu bokk kilifa di sëriñ Sidi Sène Abdou Lahad ñu boole ñu ne ma na ngeen ànd ngeen liggéey.

au Sénégal am ay chantier yu mag léegi boo fa demee sax da ngay gis il y a une périphérie une banlieue entre guillemets buy développé wu ci à grande échelle. tey jii Touba yéen ñi nga xam yéen a ci conseil municipal bi est-ce que def ngeen liggéey boo xamante ni moom mooy ñuy wante ci benn tableau Touba en chiffres. Mhm. c'est-à-dire le besoin nan lañ ko estimer population bi nan la toll. Mm-hmm. ah besoin ci walu ndaw ñi nga xam yëngal na Sénégal fimné fan lañ ci tollu ci walu xey ndaw ñi mm-hmm. Touba ci walu industrie fan la toll mm-hmm. jigen ñi sen ki fan la toll walu paj gi le plateau technique à Touba est-ce que tay ji ce travail est fait par le conseil municipal euh, mi ngi ci parce que PACASET bi mu ñëwé parce que quand même euh, def nañu évaluation ñël ci maire gi Sénégal Touba a été choisi parmi les villes Amna, amna infrastructure yo xam ñango fay def ay tali ay ak ak mel non bokku da ca un plan un plan stratégique

et je pense qu'au terme de ce travail là dinañ am ben, plan directeur boo xamante bi bii bu am solo lay doon loolu ci wàllu assainissement par exemple plan directeur am na gis nga daaw doon nañ ci wax mais léegi on a ONAS defar na tous les tous les acteurs yi nga xam intervenir dans ce secteur là ci la ñuy xool conformé wu ci maintenant est-ce que liggéey bu ñu délégué fi mu ne. fii ci kanam la. waaw awuma satisfaction ci sama sama question. parce que pour man tey jii agglomération bu toll noonu. Mhm. dafa am ay besoins te ci contrôle euh, ñi nga xamanteni ñoy fréquenté dëkk bobu yëpp da ngay gis né dafa am ay urgence yu ñu am urgence sanitaire ci la bok urgence ci walu industrie ci la bok ndax la fa ndax ndax y'a un marché de consommation extraordinaire tuddu nga légui magal gi jéxitu magal gi ci dëkk bi parce que dëkk bi c'est 230 milliards mais 230 milliards yi dañ ko lépp day gën waaw ki la num mu tuddati taux de croissance extraverti la waaw légui nan lañuy def loolu ba dëj ko fa am lu fa dess am ben plan Marshall ci walu marché yi ba nga xamanteni dinañ ko mën a dimbalee ña nga xamante ni ñoom ñoo est-ce que liguey bobu nekkul luñu déléguer par exemple une institution comme Touba ci kanam aujourd'hui non délégué est-ce que conseil municipal bi existence am finalement duñ ko relativiser de xam nga conseil municipal mënu ma ko sori parce que nee na siñ beeku moom alors lu sëriñ bi la c'est ça le problème aussi àllu sëriñ bi la man mii sëñ bi mooma moom donc dafa am yoo xam ne mënu ma ci sori mënu ma ci xóotal ba seen liggéey duñ du ngeen duñ ci def taxaw seet euh, xool ndax dañoo war a yeesal dañoo war a yeesal conseil bi soppi ko wala mais mais mais mais kooku yow da nga jël audience sëñ bi nga wax ko nga ko sëñ bi yeesal sa conseil bi soo bëggee suuf mën naa la audience

Màkka tey boo boo boo génnee pétrole bi lu ëpp ci seen ressource ci aj ci aj gi ak umra lañ koy jëlee. dañu organiser wu ba nga xamante ne bii. maan ñu ci amee kenn xamul nu mu toll. tey jii aussi tey ville de Touba mënoon na loolu le Sénégal même mën na loolu te su ma nee Touba il la magal de Touba je parle de tous les événements religieux yi nga xamante ni mi ngi am ci réew mi. mais mais lan moo tax taxawaay bee des lan moo tax loolu amul. nous on a essayé nous on a essayé parce que pour la première fois nous quantifier tel événement eh, tel impact économique dana générer tant de mel mhm. on a invité tous les hommes d'affaires parce que parce que en tant que comité d'organisation mhm. mais on a invité les hommes d'affaires ne mais Li ak ak guilem yi ak 33 milliards chaque année lolu derrière, imaginez, rek da ngay imaginer li une industrie de tannerie surtout Touba ak ça fait peut-être combien 100 kilomètres va faire bi koy donc y a, donc disons y a quelque chose à faire sur, cet là le conseil des ministres décentralisé bi amone djourbel ban place le ci Touba monde le Conseil des ministres décentralisé, est-ce que ces questions-là ont été mises sur la table, discutées mais, aussi, il y a un résultat à du aussi. xam nga xam nga xam nga buñ ne buñ ne dañuy def conseil des ministres à Touba. Mm-hmm. Euh, à Djourbel, mm-hmm. su ma nee sax à Touba. Mm-hmm. da ngay xam ne boo ne Djourbel, Touba nga njëkk a tudd. la ci firnde ba mooy boobu ñoom ñëpp Touba lañ fanaan si Touba lañ dal. tout à fait Quand Touba avait quand une place extrêmement importante dans ce conseil des ministres mais encore une fois.

qui doit donner le temps est-ce que c'est le conseil. en tant que talibé. Mhm. à Touba.

activités yu bëri donc boo demee commerce rek dafay gis la plupart du temps. boo jëlee boo jëlee infrastructure yi et c'est ça surtout le rôle de l'État <coughs> barki dem rek la ñu fa jógee avec euh, le, le dirigeant de la de l'ONAS tey jii ña ngi fay assainissement des des eaux usées boo xamante ne bii mën na lu mat juróom-ñeenti milliards daanaka pare na ak 80 avant màggal dinañ ko inauguré tey jii boo jëlee 30 bañ fa doon def ëpp 12 milliards moom itam xëy na balaa màggal man na mën naa sori. ñoom kay balaa màggal rek. hôpital màggal déet mën naa sori laa la wax de. infrastructure dañuy utiliser ci màggal mën naa sori laa la wax man wax ci télé mën naa sori laa wax. Mhm. donc lu leer laa wax. mais constat mooy balaa màggal nga gis directeur yeeg ministre ku ñu di inauguré. donc des projets <laughs> inachevés ça c' est lapsus. des projets des projets inachevés. c' est des projets inachevés. li nga xam ne moo am solo jii. <laughs> Mhm. hôpital ba. nga xam wax kat yu bari né hôpital du fi am hôpital du fi am mais tay jaar fa yoon dar Muxti certainement mom romb ko barki dem dem na fa xamna bo ba demee ni sax no xol na ko gis na né paré alhamdulilah nga xool nga ko gis naa ne pareegul ba tey gis na naa ne pareegul ba l'emploi donc donc donc moom laa lay wax né la mm-hmm. tay ji quand même en terme de en terme de bilan buñ né buñ né Touba c'est pas pour rien xam nga li am solo moo di ne mm-hmm. euh, wax naa ko légui sëñ euh, sëñ Mountakha c'est c'est c'est une référence euh, voilà spirituel c'est une sommité Madame, ñun mënuñu imaginer moom li li nga xam ne moom la représenté ak lan mooy dayoo loolu yàlla rek moo xam. surtout sa vision. sa vision yàlla rek moo ko xam. Mm-hmm. donc c'est pas pour rien que léeg-léeg muy sa satisfaction par rapport à certaines réalisations c'est ça aussi la vérité nekkul kuy waxantu. Mm-hmm. donc bu vous su bëggee ci mbir rek mooy mbir parce que Dieu yàlla lay waxal day wax ngir très bien. Euh, ci budget mairie Touba laa bëggoon laaj ba xam est-ce que pexe am na pour ñu yokk budget bi dëkk bi ni mu toll budget bi ñu naan ay cinq milliards ak ay 6 milliards yu côté yu mel noonu est-ce que pexe am na parce que ñu ci bëri dégg naa ñi sant Mbàkke dëkk fa ñoom ñooy yor ay centre commerciaux yoo xam ni suñ leen ne kaay leen ngeen fay ñu bañ wala ñu yónnee ci sañ ba ni leen seen dëkku maam la amuñu droit fay est-ce que pexe am na pour ñu mën a élargir euh, assiette bi nga xam ni mooy jur budget bi.

Si vous yokk un budget mais il le recouvrir. parce que budget prévision la boo nekkee 5 milliards mais si on dem dem dem ba y si ñaari milliards Ce n'est pas la peine que Il y a des difficultés en recouvrement. parce que yu bari moo tax. ci encore man problème mentalité bi ki nga pour nous faire l'impôt c'est un problème. lu tax parce que rapport bi ñu amoon ak tubaab ba tubaab indi fi lemp. xëy na tamit dañuy fay lemp. ci laa jëm si non non ci ci laa jëm si. bu dee chaque année nga fay lemp sa marché lakk. may ma may marché ba sax moom marché occas ba la muy lakk bëriwul. donc loolu am na ci donc yaa am na am na bara psychologique boobu pour que nit ñi eh, am am culture dafay fay lemp Sénégal yi am na boobu culture mais quand même boo duggee ci fu la gën a àlle foofu la foofu la ba ca des itam moo di ne li nga xamante ni moom la gën kilifa bu baax doon wax te tey muy devise Touba ci kanam di leen laaj lu ñu man di ko def fu ñu xam. Mm-hmm. ça aussi c'est extrêmement important. c'est très important. très bien loolu ñaari laaj avant ñuy dem ci Mamadou Ndiaye ak interne. ñaari budget bi kon pexe amul ci élargir. Euh, pexe du ñàkk fonds de dotation bi ñaata la pexe pexe pexe du ñàkk. fonds de dotation bi ñaata la pexe du mais mais mais mais mais mais dama la bala ngaa ngaa yokk sa budget fexe ba recouvrer li nga xam ne moom problème de recouvrement bi problème de recouvrement bi nu ñuy def solution bi lan la loo yaakaar ne moom la. mooy li wax naa ko léegi laaj li ñu mën def ko fu ñu xam boo ko defee di ñu jox la. mais ba pare mais ba pare. <laughs> c'est très simple. ba pare wax na ko mais. le Sénégal gépp la nag. mais le commerce à Touba par exemple dafa nekk activité boo xam. ni ko Fatou waxee mën aussi xam nga réew dafa am nu muy doxee. waaw doone ni nañu fay lii ñee lu ngeen mën ñu fay ko lool c'est-à-dire réew dafa am nu muy doxee day tege ci charte. donc fiscalité bi lañ war a lañ war réformer. moom lañ war a réformer kon. bu ñu bu ñu ñëwee bu ñu ñëwee eh, déjà tey jii boo réussir disons élargir l'assiette fiscale lu fukki ni doon fay nga feex ba ñetti biir di ko fay xam nga na woyof ça c'est un premier point day day day day daal di mën a woyof la ca des nag moo ne que xaalis bi lay jox ñu am claire conscience que ne kat mu war a dem foofee lay dem. Mm-hmm. et ma wax la aussi beneen affaire tey jii bu dee Touba. Mm-hmm. taalibe yi pare nañ pour joxe lu ne. Mm-hmm. Touba ci kanam firnde la ci day taxaw ne kat damay laaj addiya sama objectif mooy 300 millions ni ñu jox ko 1 milliard 500. loolu fi muy am bëriwul kon nit ñi am nañ pas-pasu joxe. am nañ yéenay joxe te loolu du ñu dëkk Touba dong ñi képp ko xamante ne bi talibé nga ki am murit fo mané ci monde bi Té jii bu ñu la won da ngay joxe addiya ngir mi développer Touba mais avec plaisir nga ko dee boo magal sé très bien ñaari laaj ñam ñaari laaj jët Pape rek ben commerce bi dafa am solo te Touba. Mhm. ña fay commerce ci Sénégal fu nek la ñuy ci Sénégal mhm. dem commerce ji fa donc melting pot la mhm. ñëpp dañu joggé fépp ci fu nek ci Sénégal nek commerçant japp ne fofu.

wala lu ko gën a rafet ba lu ko gën a dëppoo ak jamono. te Touba bari nay marché xanaa kay occasion da cee gën a mag mais bari nay. waaw yëpp rek yëpp rek moom mooy moom waaw moom moom échantillon bi nga xam ne waaw balaa boo boo ko xoolee xam xam na mel moom moo ci importance gis na mel. kon kay yeneen yi sax daanaka waxaale woo ko. mooy activité principale bi. waaw te te te loolu. te loolu te loolu aussi faaw ma euh, nañ ko nañ ko souligner parce que jëf ju baax la. Mm-hmm. sunu maam ñu baax ja mu di Serigne Saliou. Mm-hmm. gisoon na ko. Mm-hmm. boo demee jànnatu gis nga marché moderne ba mu fa def. marché moderne la fa tabaxlu.

man Macky Sall laay jàppale. moom laa àndal moom laay politique jàppale geeti lu ko sabab wax naa ko fu nekk moom woon ne ma kat kaay jàppale moom parce que am naa yéene ci Touba te gis naa ne maa ngi koy def lu xam. lii wala fi di wax nag gan du yewi ay bëy wala man gan ci la ko neex moom lañuy jàppale. moom nee na lii maandu leen ci fekk dañ ci maandu bàyyi ko moom xam ne mooy nday mbil gi mu jël sa décision. mais yo ministre conseiller nga tay loko bu amone amoon conseil ci wàllu lu muy doon. mais su conseil est-ce que di plateau télévision la koy conseillé. ah non dama la laaj bu la nexé du conseil conseillé plateau télévision ah, su ma amee koy wax. dina dem ba ci mom wax ko te ko monsieur le président li mooy sama xalat <laughs> génn na ceel. mais mais lu mu def itam lama ko wax ku yalla bind ko xam. Touba dama ñor gi. parce que lolu moy yoon. Touba dama ñor gi nga ni wax nako est-ce que bu ko waxé amna ay firnde yo xamante ne nii def nako ko nako na ko jëfe gis kat à chaque fois bu ñu defee remaniement du ngeen am ministre du ngeen am DG bu mag. non ça c'est anecdotique. Hum. Ah oui, oui. D'abord, d'abord, on fait, ne fait pas de la politique pour des postes. Les âmes solo, man bok, les âmes solo, mais impacté sur la vie, sur la marche du pays. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas avoir des postes. À la limite, même poste bokai, man le pas un avons, Il avons a peut-être dodo ko sayi wal dodo ko man. Donc, les âmes solo, les réalisations qu'il est en train de faire à Touba.

sunu maa ngi koy sant di ko gërëm sax sëñ Moussa Mouhamed dafa tabax kër ba mel na war a mën a ma sëñ bi am ma jox la. mais mais mais mais mais loolu amul prix. amul njëg. te teraanga bu sëñ Tuubaa yi moo mën a defal nit. kon loolu duñ ko jàqaleeg dara duñ ko jëndee dara ci àdduna. mooy barab bi na May nekkoon. barab bi soxna May nekkoon sëñ Modou Sa yóbbu ko fa. Mhm. donc donc yooyu bu la yàlla suturaalee nga am nga nga nga am boobu chance. day écoutez donc c'est pas des problèmes de poste wala yu personnellement euh, dans un gouvernement ou bien et je sais que tu dis, objectivement la nga def réalisation sans aucun parti politique à part Dakar. mais mais

waa man de man de li may li may wax rek moo ne nañu nañu soyo di ci ñi nga xamante ne ñooñu fi jiitu woon te tabax réew mi muy kilifa diine yi muy kilifa aada yi muy kilifa politique yi fi nekkoon te ñoom dañoo boobu dara dañoo wan lu ne dañoo wan lu ne euh, tey jii boo jëlee euh, li ëpp wax naa léegi ci ci njëlbeen ne même jàmm ji clergé bi dugg la ci. sunu sunu bokk yi nga xam sax xañ amuñu nekku ci ben diine diine mais mais ñi ñu gëm diine Afrique traditionnelle. Mm-hmm. c'est c'est c'est important parce que aussi voilà euh, donc ñom itam duggu nañ ci. et puis ñu andi ñu xam dañu am sax respect ci environnement ba garab duñ ko dag ça c'est des gens qui sont respectueux euh buñu buñu buñu délo donc ci ci ci ci yoyu ñu jël ñu jël islam té problème li ko sabab moy intolérance mo fi am. xajoo bi commencé wàññeeku euh, kenn nangulul sa morom peut-être gëm-gëmam wala kenn nangulul sa morom xañ na gis-gisam te te te te te bu ñu delloo ci li nga xamante ne bii mooy euh, mooy mooy mooy mooy njàngale mi nga xam ne moom la di lislaam njàngal mu xamal ñu ne suñu communauté benn la suñu communauté benn communauté la mu xamal ñu ne ñun ñëpp ay ay frère lañu mu xamal ñu ne sunu borom mooy wax ci alxuraan ba tey de su ma neexoon ñëpp nekk ay ñëpp nekk ay way gëm yàlla mooy wax loolu su ma neexoon ñëpp nekk ay way gëm sunu borom demaat nañu ne bu leen di saaga seeni yàlla ndax amaana bu ñu ko defee kat ñoom ñu fayu mais lan mu gën nekk leçon de tolérance waxi alxuraan yooyu dellu nañu ne diine amul contrainte kon loolu kep ko teg sa japp jàpp naa war nga mën am ouverture war nga mën am tolérance war nga man xajjo xajoo morom te te te te lu ñuy def dañ koy mën nañ ko def ci turu diine ñëw nekk tel candidat et le candidat de tel confrérie c'est pas vrai amul fi ben confrérie bu mos am ben candidat ay nit ñoo jóg def ay manipulation ba présenter ab candidat né moy candidat tel confrérie dal di xaj réew mi avec l'effet des réseaux sociaux euh, WhatsApp Facebook yi vocal dal daw ni ngi tojatee bop <laughs> ñu dikati ci walu ci ci ci région. Mm-hmm. ñu sommes en diw de bëggut barab Nous diw sàngam xeet sàngam euh, muy wax yo buñ ko bayu dana jur musiba ci ñim rew kon gi nga xamanteni bi mom lañu l'islam jangal xajoo gi nga xam ne moom lañu suñu mag ngi jàngal man dey li may ñaan yàlla te man waxtu wu nekk ci lay dox moo di loola nañ ki delluwaat te mu am euh, leçon bu am solo xam nga xam nga li suñu suñu réew mi ñi ko fondé kilifa diine ñëw ci ëpp paar ci njëlbéen moom wax ni leen fonkoon avant les indépendances Sénégal tey bu amee jàmm ji mu am képp ku def Sénégalais war ngaa sant El Hadji Mon Fallou Mbacké war nga sant Sëñ Babacar Si man damay wax toujours né ñom ñaar bu ñu jàppale doon Senghor Sénégal trajectoire bi mu jël mën a jël benen ils l'ont soutenu contre des musulmans parce que ils avaient ils avaient ils avaient ils savaient faire la part des choses Sénégal nek un pays bo xamante bi dañuy wax né quatre musulmans la ñu jël ab catholique tek ko ci bopp réew mi.

li nga xamante ni moo di suñu appartenance ci ay xeet ak yu mel noonu ñun ñëpp nag ñu xam ne on forme la nation sénégalaise ñu jël ko teg ko ci suñ kanam kenn ku nekk liggéey ngir jàmm am ci réew mi. jërëjëf euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma sëriñ bi. Euh, déclic euh, interne yi dañ Bok bokk it fa ñu nek dañuy suivre émission bi mais am ay questions yo xamné xeyna duñu ko jotta waxtane fi té seen xel ak seen xalaat bëgg ñu ñu léral ko ñu and ci ak euh, Mamadou Ndiaye Mamadou ma ngi lay nuyu wat waaw ma ngi lay ma ngi lay fay Mamadou Mohamed té gis nga internet yi déjà réaction yi bari na commentaire yi bari na ci suñu plateforme yi na Facebook live bi nga xamanteni équipe digitale bi ñoo ci doon japp ba lépp yemb di ko jaajëfal gis nga réaction yi ni mu baree ci question yi nga xamanteni ni posé nañ ko mais ñen ñi sax d'ailleurs dañ doon contribuer manam di jox joxe seen xalaat ci euh, émission bi jaajëfal bu baax émission bi ni mu démé ak euh, waxtaan bu am solo bi nga xamanteni waxtaan nañ ko tay ak suñu euh, invité bi question bi ñu tann nak moy bu Atoumane Diakhaté ak bi nga xamant jitel nako ci sëñ bi dal di koy laaj né lu tax mu desee incarner leadership leadership am ci ca fële Mbacké surtout bi ñu seetloo ni Moustapha Cissé Lo nekkatu fa leader wala dafa retiré wu. né ci parti bi. wa ci parti bi voilà.

waaw moo tax ma leen ma yaree tax xam naa loolu sëñ bi Mbacke euh, waxin la rek bu fekkee non bu ma la waxee loolu waxin la d'accord nañu xam nga boo ne xam naa ne mënoo wax wax ju wodduwul moom leer na ma c'est spécifique très bien donc moo tax ma wax yow waroo ko wax euh, non mën naa ko wax waroo ko wax laa wax mën naa ko wax waroo ko wax si mën naa ko naa ko wax waroo <laughs> naa ko wax war naa ko wax wax lu ñaaw voilà donc organisation wax lu ñaaw mooy jaxasoo bi mu wax yaw nag mën nga ne day parti bu particulier voilà laal mu ko sama xarit sama mbokk taalibe yi ci maamu mbel lañ. ah yaa ngi woon ci day day day parti bu particulier. donc euh, donc li nga xam ne et puis kenn ku nekk si jikko. Mm-hmm. wax naa wax naa léegi aussi euh, man na ko ma koo xamante ne bii damay damay xëccu ak di xëccu loolu loolu du ma du ma ko def mais tey jii day suñu borom may na ma. te mm-hmm. fa nga xamante ne bii fa lañu nekk muy ci biir Touba heure bu ma heure bu ma wootee tous les responsables politiques yi nga xam ne ñoo fa nekk. heure bu ma borom ma li ci après le remaniement ministériel je suis fa ñoom ñëpp man ma leen dajalé ñu def motion de soutien président de la république donc tay rôle bobu amna ko fa xam nga di di ak di ne ak li

ñoom bu ñu taxawee ni ku fa taxaw ni dama bëgg li man war na maa jom mu taxaw di ko bëggandoo ak moom. moom ñu ngay defee moom. waaw du du du du koy defee lañ ko war a defee ku ne ak li nga gëm parce que nañ koy defee am na fu ñu jub foo xam ne waruñ fa woon àgg te buñ ko nee fa lañ jëm. warul jar rayante de ak waxante lu ñu. loolu laa gëm. Ah. politique d'éthique. vraiment loolu laa question. moo tax du ci wax lu ñaaw.

Euh, en tant que responsable politique. politique oui ah, bien sûr non non non responsable politique bien sûr précisément. non non non man responsabilité bari uh-huh. responsabilité bari mais mais mais mais mais xam. Touba waxtu ne sama uh-huh. bi ñoo koccet deux 3 du matin ku ñëw di ma fekk avant loolu nag dafa am aussi ay ay ay liggéey am ay warteef am aussi yoo xam ne daf ma war ci ci biir yoonu murit ma seq ko également ci ak ci biir yoon wi. Mm. donc sama lépp sama lépp du 100 pour dama ko jox politique. Mm. mais mais su ma xasee tijji ba keroog may fatu te du ma tëdd mukk te ñaari waxtu ñetti waxtu jotul. Mm. ku dikk euh, da nga ma gis. téléphone bet sa numéro téléphone bi ma yor depuis 2003 changé wu ma ku ma ci woo danaa ko gis. ku ci bàyyi message danaa ko gis. junne whatsapp danaa ko gis Sénégal gépp ko yor. ci noonu ci euh, question euh, Sall moom ci taxawaayu ndaw ñi est yaa ngi liggéey ngir gën leen gën a mën a fësal jàppale ci seen promotion ñoom foofu ci euh, diggante Mbàkke ak waaw maa ngi ciy maa ngi ciy def sama sama kamtalay kattan. Mhm. pour di pour di jàppale pas ndaw ñi rek mais di jàppale askan bi hmm. parce que parce que bi may bi may dugg ci wàllu politique la ma slogan ba ma amoon moo di. je mangage ngir askan wi askan wi moomu ci dugal kon nag mënoo askan wi moo la dugal ci mbir nga dugg ci ba ci biir te doo geesu askan wa doo leen bàyyi xel donc loola maa ngi ciy def sama kéemtalaay kattan ku ma ci mën a wutal liggéey maa ngi lay wutal liggéey ku ci mën a wutal projet de financement maa ngi lay wutal projet de financement mhm. ku ma ci mën a wutal formation maa ngi lay wutal formation mais ndaw ñuy yëngatu ci wàllu politique bi ñi nga xamante ne ñi ngi yëngatu waaw ñooñu ak nag de manière générale yëpp ndax sollicitation yi fu lay jógee mhm. ndaw sollicitation yi fune ne fu ne lay jóge te itam buñ di buñ di buñ di peut-être en tant que kuy jappelé président ci bir APR ndawi ndawi APR war naa leen jappelé mais en tant que également domi dara domi kilifa diné képp ku di talibé war naa la jappelé en tant que ministre de la république képp ku di sénégalais war naa la jappelé

mais question yi jogé ci Mamadou est-ce que du tamit fay renseigner rek sur taux de chômage bi am ci bor boobu. est-ce que waaw ndax bo gisé waaw liguey yi ñëpp liggéey accessibilité beeg yëpp. xëy ay complainte dañuy ñuy ak am amna fa amna fa am fa est-ce que chantier boobu aussi ñu ci gëna amna fa amna fa amna fa ndaw ndaw ñu ndaw ñu jàmbaare te sonn ñoo fa hmm. ay ndaw ñu goré hmm. wallahi ñoo fa ñoo fa ñoo fa nekk ndaw yu mata a jàppale té contestation du sen culture lu ci bari sëñu ñuko waaw ah, la preuve bi Sénégal gépp yëngutu ñoom dañoo toog ne tekk parce que sëñ bi dana leen toog leen ngeen déglu ku laajul dara nag yelloo na lépp xanaa

Euh, dañuy jéem a xool ñu ko jege ñu wax ñu lenn ci loo xam ne xam nañu ko ci gan gi ñu ànd ak témoignage yoo xam ne def nañu ko ci ay nit jëm ci sa jëmm yow. asalaamaaleykum wa rahmatulah ah, mën euh, naa wax ni suñu relation dafa am ñu ko garanti. Euh, Euh, ñi ko garanti mooy mag ñi nga xamante ni euh, ñoo ñuy suñu wayjur euh, ba pare yàlla jox leen ay taxawaay ci réew mi jox leen ay taxawaay ci diine yi mën naa ci site ñaar gannaaw relation bi nga xamante ni suñu ñoo ko bokk ci deret ci maam relation bi ci bi ñu am tey mën naa wax ni sëriñ Abdou Al Amin ak suñu wayjur Serigne Bachir Mbacke euh, Abdou Khader ñoo ko garanti ndax ñoom ñoo jël suñuy ñaari lafu mbubb euh, takkale ko ngir ñu ànd ndax ñu ay ndaw lañu di dox ci diine ndaw sax su ma nee ndaw c'est relatif waaye ñoom ci seeni kanam mënuñoo nekk ay mag. sëriñ euh, Cheikh Abdou Lahad damay wax rek benn citation sëriñ Cheikh bi wax ni à chaque jeunesse sa responsabilité. Euh, soit elle l'assume ou elle la fuit waaye nag l'avenir nous jugera loolu la Serigne Cheikh wax moom euh, dafa nekk ndaw euh, nekk ci dund bu lëndëm waaye yàlla baaxe ko ci d'abord ci juddu mu am taxawaay waaye loolu rek doyul ndax ku ñu nekk sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma mooy sa waajur sëñ Modou Moustapha di sa maam sëñ Touba di sa maam am nga responsabilité boo am ci wàllu diine gi mais moom loolu rek doyul daf ko dafa jóg am taxawaayu boppam ba tax ne tey euh, ci wàllu diine ji euh, wàllu kër maamam mu am fa taxawaay bu am solo ndax gis nañ li mu taxawee ci wàllu euh, commission culturelle bi nga xamante ne moo ŋànk màggalu Tuuba yàlla def mu mu mu jiite ko di taxawee ay jotaayu xam-xam yu am solo ndax booy xool sax. Euh, suñu relation mun naa ko wax ci wàllu cadre unité de l'islam ci loolu la jóge mu am beneen taxawaay bu am solo ndax li ma wax ni moo ko faggul boppam euh, ci wàllu juddu am na lu ko yàlla faggul waaye ci wàllu àdduna am mu faggul boppam li nga xamante ni mooy taxawaay ci wàllu politique. ah te ma dégg Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di wax ni euh, le péché de la laïcité hésite. plus essentiellement euh, sur sa position de neutralité maanaam laïcité bi nga xamante moom lañu am ci réew mi tey lii kay jafe-jafe bi mu ci am mooy euh, taxawaayu euh, ñàkk péete bi mu am ci wàllu diine euh, moom nag mu xam ni nitu diine la waaye du ko tee mu jël responsabilité am ci wàllu politique jël responsabilité ci wàllu état ah yàlla def président Macky Sall takkal ko ndombal tànk waaye na mu am taxawaay bu mat sëkk ci wàllu diine ngir mën Euh, am fu mu féete askanam am fu mu féete réewam day wane rek taxawaayam ci wàllu euh, boole këru diine yi bii nga xamante ne dañuy og dañuy woote lii mooy cadre unitaire de l'islam ci membre fondateur cadre unitaire de l'islam la wax euh, cadre boo xamante ni dafa boole maanaam comité scientifique yi nga xamante ni ñu ngi ci réew mi nekk ci këru diine yi ak association islamique yi mu am ci nag taxawaay bu am solo doomu soxna bu duggee ci ci way politique dafay ñëw ngir Euh, assainir climat politique day ñëw pour assenir loolu nga xamante ni mooy paysage politique bi te moom ci loolu lay dox. Cheikh Abdoulaye Daouda ma euh, li ma xam ci moom mënoon naa ko tënk ci benn baat mooy nit ku baax la xam naa ko bu baax sama xarit la sama wëllëre la c'est mon frère aussi. ndax euh, suma diggante ak moom diggante li xam ne dañ ko doon ci suñuy waajur suñuy waajur doon noonu diggante boobu ci maam yi ba léegi donc lu bari ak lu yàgg moo ñu boole man ak moom te man de xamuma ndax sàmm naa sama côté mu mais moom sàmm na sama diggante ak man am sëkk yore lu ma dara ci côté boobu euh, nit kuma ma naw la nak manam mën na wax ne mom incarné na modèle nit bi nga xamni bu fekkon man may defar sama bop ni may mel mom incarné nako ko euh, dañuy wax ni du xam bopam man xamuma nan la mel waye xam nan labu bëggoon mel te ni ma bëggoon mel moy, Cheikh gay Gaynde ma ni mu mel noonu laa bëggoon mel buma sañon bu doon may defar sama bop di mel nu neex Euh, ay valeur morale am ngëmam euh, ak sens de l'engagement wam lépp lu xam ne day màndargal nit ku baax mu ngi si incha allah

wax na lépp sax way juram moo ñu moo ñu boole euh, sëñ Abdou sama sama wajur la woon sama wajur la woon euh, su ma fa mosaan dem damay damay damay sax rus ndax sama su wajur la ci ñaari côté yëpp mais bu dikkee euh, teraanga ji yéwén gi ak nawloo gi ak mbaax gi da ngay da ngay rus day jàpp ne sëñ Cheikh Mbacke ñëw na ci moom wala sëñ Mourou Moussa ñëw na ñëw na ñëw na seet si ko te loolu foofee la ko doon ne woon diggan si Mansour ak sëñ Babacar si sëñ mag bi ak si sëñ Hadj Malick euh, ñu sëñ Abdou ak sëñ Bassirou Abdou Khadir toujours dinaa dinaa ko waxat tey euh, diine gi Sénégal amee na leen njukkal lu rëy rëy rëy rëy ndax rapprochement nga xam ne am na ci communauté yi joué nañ ci rôle bu am solo te loolu man dafay ki sama kanam ma man koo seere te du ma lu ma xamut Euh, mën naa ne moom mi li mu ci dox ak man li ma ci dox ci ñoom ñooñu lañ ko gisee ndax seen ndax seen ndaw lañ ci woon te moom gis nga cadre unitaire bi mu ñuy wàlle aussi docteur Cheikh Gueye ndi ku baax ko jàmbaare kuy def liggéey bi am solo dans l'ombre jàmm ji aussi am na lu rëy loo xam ne ñoom def nañ ko ci te kenn yëgu leen kenn gisu leen loolu loolu moo di baax da def li nga war a def ngir yàlla suñu borom moom moo lay moom moo lay fay moo tax te te te lii mooy li am solo parce que parce que tay euh Touba ak Tivaouane ak fenen ak fenen dañuy ben ndax ño bokk pass pass bi ndax ne pass pass la mais bu pass pass bi aussi dañu bokk deret bokk génération bokk bëgg-bëgg donc tax jaxasoo bi am ñu bolé sunu sunu bop té loolu moy tabax réew mi gis nga tant que li mi ngi am crédit yi di di jaxasoo à ce niveau là jàmm rek mo am ci réew mi. Boudé Aliou Aliou sama xarita sama xarita mën naa leen wax tey ne je j'ai fait une révélation mën naa wax ne premier plan de communication bi am ci événement diine ci biir Sénégal moom mi moo biñ ma biñ commission mi war ci biir pàngal gi ko dénk mom mo defal na plan de communication avant loolu dañ doon sa mboxloo rek et pour une fois ñu am vraiment une vision claire avec une stratégie

internationaux di jël di jël réew naar yi réew américains yi tubaab di leen fi indi ñuy ñëw ñu commencé bi ay ñu bind ay livre moom waxu ko mais il a été acteur de sax moom Alioune Fall moom Alioune Fall parce que boobu gunge na ma ci. te euh, mën naa ko wax fi moom Racine Talla booba mais bon parce que ñu jógee président lañu boobu ñu ngi ci opposition bi Racine dafa koy fàttali ba léegi dafaa jóge mën ko dee lii ngeen defal Serigne Touba ren jii na nga teg sa bët un après il a été nommé directeur de la RTS ba tey bu ma gisee dafa koy wax.

léeg nga juub léeg-léeg nga kii di di di jóg ko daan mais ça qui est important mais li am solo rek moo di yéene ji ak jublu gi. te bu ma desee léegi ci ci wàllu jàmm ji peut-être comme comme léegi nga tëj. loolu sëñ Tuubaa da xam ci jàngaloon daf waxoon ne ñu euh, wut jàmm mais yëmu ca dañoo wax li nga xam ne moo koy may loolu mu ne da yéene lu baax da ngay def lu baax dangay wax lu baax dangay def lu baax da ànd lu baax loolu waxi sëriñ Tuubaa la te ku gis njabootu gi fi nekk ci loolu la ñuy dox mu bëgg na ñun mboolem Sénégal ñu tënku ci loolu xam ne réew mi ñoo ko bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk nekk ci école yi ñoo bokk nekk ci ci fonction publique bokk nekk ci bureau yi bokk nekk ci télé yi bokk nekk ci rajo yi euh, ñoo bokk lépp di daje ci xew yi day ci magal day day ci daayira yi même ñooy football sax ñoo day ci stade ya kon benn lañu on vie en communion loolu nak buñu ko dara dara dara di jaral di ko yakal buñu ko dara dara di jaral di ko yakal parce que parce que loolu mo suñu première gànjar gi ñu am buñu dëkk da nga ñëw Sénégal amul pétrole amul dara waye nak am lu mu am loolu ñu am nak nañ ko sam parce que pétrole lay jeex de jékki-jékki prix daanu da da da lu fi am dem na pétrole bi nek territoire négatif moins zéro ci suuf nga xam ñu ko am sax boo bëggee tay bo am foog de bo ñu ñu may la ko. mais suñu gàññe googu ñu am nag buñ ko yàq gàññe googu aussi la ci jiituwaat sa nos ressources humaines nañ ko defar fonkaat ko xam ne kat nit nit mooy taxaw pour mën a tabax am réew kon nañ njëkk tabax nit ñi te leen ñu aussi nag rafetlu euh, vraiment liggéey bi seen liggéey rafet na euh, jàmbaar nga ñoom ñi aussi Makumba euh, Pape Djibril soxna Fati vraiment liggéey bi rafet na joxoon naa rendez-vous ci Touba xam naa su ma ñëwee Dakar dana ma sonal. <laughs> <laughs> jërëjëf euh, jërëjëf Mbacke. mais sant yàlla rek fii fii daal suñu kër la. jërëjëf yàlla nañu yàlla jàppale. jërëjëf jërëjëf Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Gaynde Fatma ñu it kontaan bu baax a baax. Euh, ci euh, wuy si gi nga ñu nangoo wuy si xat-xat tol tolluwaayu jamono xëy na doon na jafe waaye nangul nga ñu ko mbégte la ñu ci am di la sant bu baax a baax gërëm it ñi nga xam ne ñoom lañu ñu àndoon doon ci Déclic soxna Faty Dieng euh, Pape maa ngi lay gërëm bu baax ma Makumba sant leen bu baax a baax gërëm Mamadou Ndiaye gërëm équipe bi ñu àndaloon ci Déclic ci njiital Pape euh, Samba Thiam Mamadou Ndiaye ak service digital ñoom Pape Jean talaata bii di ñëw beneen Déclic geneen gan ci télévision Futur Média mbokk yi ñu ñu fanaan jàmm